نكور محمد احمد لو طالف كو غاني نيت يالله يو بري بري تومال تفوف كي اي كاد يو خامتيني دا ريورو تيا يان بروم بي سبحانه وتعالى مكتنل سيرين خادم ميغا خام نيوم نانتي اندال ديفال كو توفيق با ليپ لو خامتيني بغ نكو ليرال سون بروم ماي كو مو ليرال كو برك سي اول خديم نيون كوي غانال سون بروم يالله مو سام كو ار كو سي بولين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 صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار كن جرائيجكم جفنا أي موضوعات أي جوانب يوخمن متعددة لا رنجة أه سنو جرائي تيجينك جنو كنت بند بابو متناهم أه نمائي كيربي Euh, programme bi biñ ciy doxee mooy dañuy topp téere bi du caagi de dañuy tëb rek daan ne wax wax na sàngam de dañ fay def déedéet dañuy topp téere bi na mu ko bindee ni mu ko rangalee ni mu ko tartibee bunt yi noonu la ci duggee noonu lañ ci toppee di ko liir ba bu buñ gis na fii ba war a taxaw ñu taxaw ci euh, noonu la rajo bi demee moo tax xam naa ni méthode bi euh, am na ci ñoo xam ni ba ñu tàmbalee ba tey gisu ko ñu tudd ci tur Euh, diw la ko waral mooy dañ cee ak bu fekkoon ni sax yàlla dogal na silsile bi nar a àgg ci ci kaddu dañ cee ak euh, kon loolu mat naa xam kon téere bi niñ ciy doxee mooy dañ koy topp ni nga xam ne noonu la ko rengalee noonu la ko tartibee euh, nam ko tegalee noonu radd bi tamit noonu lay tegaloo da nga xool waram xam-xam yi seen radd bi bu ñuy radd léegi-léegi ñu ci bérébé na sub kii raddee woon آه، ابن القيم كثير بمتل الصيف الثقيل في رد على ابن الزفيل نحن نقول طب وين لنا مام خليفة ردي وون كوكو دي ابن مايا بل جاني كثير بمتل الجيش الطلع الجيش شرح المرهفات القطع كي تيري بوم نغا خامني في رد على زلقات التجاني Euh, radd bi mel noonu moo di la mu wax lépp lépp lépp min alifiha ila yaiha da koy topp loo ci taxawul rek jàppal ni loola imma dañ cay dëppoog moom euh, wala xëy na nekk dëgg ndax ndax doomi aadama du bind téere ba mu jeex sàkk te lam ci wax lépp lépp lépp lépp lépp rek du am benn ibaara boo xam ne lu wér la loo xam ne mënu ko ca faaw faaw mu wax ci benn ibaara bu wér loolu moom mënut a ñàkk waaye radd bi ni muy tëddee mooy dama ko waxee sànq noonu moo tax kon euh, noonu la tëddee tey jii nag di ñëw ci sunu euh, tomb bu njëkk tomb bu njëkk bi moo di saaxibu taqdis saaxibu taqdis ci page 39 dafa wax wax ju doy war wax ju yéeme yéeme ci tasawuf dafa wax ne tasawuf ak ndànd fay fay la goo xam ne amul ay bawaabit maam tasawuf ak ndànd fay fay la goo xam ne euh, amul dara lu ko tënk amul daa amul ay règlement amul ay qawaid amul ay dawabit amul ay limite moom daan daan dafay fay la boo xam ne nee na daan dafay fay la boo xam ne lu waaye njàmbaas rek mu bokk lu waayu sos rek lu waayu kër yi mu dugg ci biir lu waay wax nu mu mën di mel dañ koy considéré comme tasawuf lu waay njàmbaas ma ngi ci biir maanaam daal amul ay xawaid tasawuf amul ay xuduut amul ay dawabit lépp lu waay sos rek ma nga ci biir lépp lu waay sos ci ay wax lépp lu waay sos ci am njàngale lépp lu waay sos lépp rek les les variables pour tas moom tasawuf daal par na pour acquérir lépp lu waay wax ak lépp lu waay jëf ak lépp lu waay njàmbaate ma ngi sa biir euh, saaxibu taqris nee na loolu mooy tasawuf ah moo ko wax nee na nee na tasawuf ba pare nag mu ne loolu ahlu tasawuf ñoo ko reconnaître nee na war tasawuf jëmam nee na reconnaître na ci ne bi boo xam ne dafa tegu ci ay qawaid amul ay règlement amul ak ndaan dafay ak ndaan dafay fay boo xam ne lu waay rek mu dugg ca biir nee ñoo ko wax daañu njëkk wax ne daañu njëkk wax ne ab lim ci tasawuf ñoo ko wax ba mu nekk ko ci mujj ga mu ne ahlu tasawuf ci jëmam ñoom ñëpp ñoom ñoom reconnaître nañ ci ne seen seen seen mazhab bi noonu demee loolu di tuuma ju rëy sëñ bi xoolal mazhab bu mel noonu ni mu mën a ñaawee mazhab boo xam ne amul ay qawaid amul ay xuduut lu waay wax rek te mazhab ba la bokk exemple mazahib al malikiya Abu Bakr ibn Arabi lu mën di wax rek dañ koy considéré ci mazhab Malik boo xoolee mazahib al fiqhiya sax demee wul noonu mazahib al fiqhiya sax demee wul noonu boo demee al Qarafi بمليار قواعد المذهب تي الفروق تي الذخيره دا لي واخنا بتاغي ليپ لو ليپ لو بروم خم خم اب كانغام واخ بوكو مذهب ماي لول دنان بوكو مذهب داغي اسنا المذهب بي اكزامبل ابن عبد البر بو خون دار تي فقط واخ دار تي دنجي ادنا مذهب بي ليرك waye mazhab mazhab moy la nga xamni ñom dañ ko taddi wi ci seen ummahat taddi ko ci seen usul ba pare depp ci ñom ñepp tasawuf noonu demee faw bal nga xam ne lii daa bokk ci njàngam tasawuf faw day fekk mu nekk loo xam ne ñoom dañ ko tadwin dëppoo ca bare nag ñoom ñëpp ñu dëppoo ca waaye du nekk loo xam ne ci ay benn benn ko gisee waaye ànd ak loolu lépp saaxibu taqis nee na tasawuf ak ndam dafay fay la goo xam ne amul amul ay qawaid amul ay dowut lépp lu waay sos rek lu waay njàmbaas ma nga ca biir subhanallah li ca gën a yéeme moo di daa wax ne ahlu tasawuf ñoom rek ko nafer nañ loolu ah kan moo wax loolu kan moo wax loolu ci ahlu tasawuf mu indi la ñaar képp ne la ahlul tasawuf reconnaître nañ ko ñaar ñun ndax ndax moom lañ wax waxuñ loola sax far tuuma ju rëy rëy la ñaar ñi ma ci kat mooy kenn ko mooy docteur euh, Ahmed Bahjet ca téeréem ba mu tuddee euh, Bihaarul Hubbi inda Suufiya euh, ak it kazalika docteur Abdul Khatib moom it kazalika ci téeréem boobu nga xam ne du ko tuddee nashatu tasawuf ñaar ñi nga xam ne ñaar ñi ñu mujj lañ kii ci jamono ci la bokk ci al ulama al mu'assirun ci ñu mujj ñii la ah ñaar ñu mujj ñii la jël ñu maanaam bu fekkoon ne sax li wax ne ñu mujj ñoo ko wax ñu ne waaw waaye ñaar ñu mujj ñii la jël lañu wax ci seeni mu ne ah, kat li ñuy wax mooy tekki ne kon ahlu tasawuf ñoom ñoom seen jëmm nee nañ ñun ahlu tasawuf suñu bi ak ndaan la fay fay la amu maa ca biir tey euh, bu fekkoon ne ñaar ñi sax ñaar ñim toxal ba pare nag maanaam toxal ñaar képp daal ni ñoom kon kon loolu lañ wax mi ngi mel ni ci mazhab Malik boo ñëw ci mazhab Malik Euh, nga ñëw ci nga ñëw ci abdul bari mu wax dara loo xam ne madahib euh, fuqahawal maliki ñëpp dañ cee dëppoo woon euh, fekk kazalika ibnu arabi bi ca aarida mu wax dara nga ne ah ñaar yi wax lii kon madahib madahib malik kon ñoom mooy li ñu wax na déedéet bu fekkoon ne sax li mu wax wér na waaye nag allahuma ñooña la ñu wax ak moom li mu wax du benn dana leer ci tafsir yi léegi kon wax jooju kon mu wax ni tasawuf dafa am ak ndaan dafay fexe boo xam ne lu waay lu waay sos mu nekk ci biir amul ay xawaayit amul ay dawaabit loola wérut des na jàng texte bi texte yi nga xam ne texte yi nga xam ne moom la toxal ndax moo fa nekk texte bi dafa des na jëlu ci téere ba téere boobu di bixaarul xubbi inde suufiya ndax ndax loolu la wax wala déet buñ ci paree it leeral ci ne waxam ji moom weddiwaat na ko weddiwaat na ko ci volume 1 wax ji mu wax ne tasawuf amul ay xawaayit amul ay règlement moom daal dañ ko dañ ko bàyyi noonu rek lu waay sos mu dokk ca biir loola moom saaxibu taqrib wet war na ko ca mbirante ca ca ca trois page trois cent quatre vingt onze des na ci ñëw jàng ko fa mu ko weddee moom euh, wedd na ko moom ci jëmam waaye des na ko wedd ci kutubu ahlu tasawuf ñu tànn ci ñaar mooy ñaari kàngam wala ñetti kàngam yoo xam ne ci tasawuf dañoo taalif ay téere te téere téere yooyu la mu tudd mooy qawaidu tasawuf euh, ka ci njëkk mooy Zarruq Ahmad Zarruq al-Shafi'i taalif téere boo xam ne da ko tuddee qawaidu nga xam ne téere la mu tudd mooy règlement tasawuf قواعد حبوط ضوابط اللي مخنا نتصوف أمن جو أحمد دروق تاريخ تير من تبي قواعد التصوف شعراني شعب الوهاب شعران تاريخ تير بجاء الأنوار القدسية في قواعد الصوفية ما أنتيري بدور لقو تاليف نيرلن نجد جانجا لكي ريغل ما تصوف قواعد التصوف شرط التصوف حدود التصوف أك نينا نيرو نوم أه كون أك نينا نتي نيغا خان نيو تاليف في قواعد التصوف muy cekkee ne bu fekkoon ne tasawuf kon moom daa nekk loo xam ne amul ay xawaayit amul ay daabit amul ay règlement lu waay wax rek ñu considéré ko ne ah lii ci lii madhab la bu valable bu di ci ahlul tasawuf lan moo tax zarruq di taalif loolu loola mooy li nga xam ne mu aj ci tomb bu njëkk bi ñaareel tomb bi mooy saaxibu taqdis dafa toxal wax joo xam ne daa jar a leeral wax joo xam ne da ko wax joo xam ne ñu bëree ba damay damay gis ci adiya u salafi yi ñu koy faral di wax moo di wax jooju nga xam ne dañ ko toxal ci Sahl ibn Abdillahi Tusuri abi Mouhamed Sahih ibn Abdullah Tusri nga xam ne wala taf tustari comme ni ko Ibn al-Jawzi di waxe ci sifatu safwa Sahel moomu dañu am jéen wax ñuy taxawal ci moom mooy alayka bi suufiya fa innahum la yufassirun wala yustankiruun wa li kulli fi'lin indahum ta'wil wax jooju ñoom adiyaa u salafee dañ jëfe di jëfandiku di wax ne ah gannaaw Sahel moo wax te Sahel kenn loolu ci Sahel tasawuf kon loolu la muy tekki moo di kon loolu la muy tekki moo di Sahel maanaam kon kon loolu la muy tekki mooy day dëggal li saaxibu taqdis wax ne kon tasawuf ak ndaan dafay fayal goo xam ne amul ay qawaid wax jooju nag daa jar a leeral li muy firi dafa ami dalil te it li muy firi ak ñoom ñi ko dégg du benn moo tax waram xam-xam bi doon taxqiq ak taaruf li madhab ahli tasawuf bu bi abi ishaq abi abi bakr al karabati day wax ne wa li kulli qawlin indahum tawil rek firi na ko loolu mooy ñaareelu tomb bi ñaar toom boobu nak nañ koy doxé moy dañuy léral ka moy sahl ngir léral waji euh xëy na fiid wi fu mu àgg ci jam ñoo xamné ahlus sunna wal jamaa dañ leen reconnaître dañ leen aj ci kaw euh day fekk ñoo xamné ahlus sunna dañ leen tazkiya teg leen ci kaw lañ wax ñoom mu nekk ay wax yu day war ahlus sunna ci jamono def leen imam waji ñëw teg leen ci suuf boole leen ci génn leen ci ahlus sunna dugal leen ci sallatul mubtadia ba par nak jam leen loolu buñ tarjumalee kan buñ leerlee kan euh, lan la Cheikh Islam wax ci lan la Cheikh Islam maanaam tarjuma bi sax des na ci ñëw ci troisième point bi waaye nag dañuy tànn li Cheikh Islam wax ci kan mooy Sahel euh, pour ñu xam ne waa ji ni mu waroo ak sëriñam di Cheikh Islam Taymiya ah, Cheikh Islam li mu seede ci Sahel ibn Abdillahi Tasturi euh, ne mu wuuteeg li waa ji bëgg a saxal ci Sahel ibn Abdillah bokkuñ Sufyaan ya nga xam daal dañuy saxal ne madhab tasawuf madhabu ndam dafay fay la goo xam ne waaye sos mu dugg ca biir tayib bu ñaareel moo di tawjih qawli Sahel sëñ Abdoulaye Tassouri jooju noonu nga xam ne dañ koy dañ maanaam dañ koy faral di wëreloo ci ci ci seen i téere di wax ne ah tasawuf kan ñu rek na tax nañ ci ne seen ñoom seen mazhab bi ndànd fay fay la ak ndànd fay fay la sëñ Abdoulaye moomu waxam ji tawjih bi ci tawjih mooy waxam ji des na ko leer lan la ci jublu ak it ndax lam ci jublu ndax am na dalil ndax am nañu ko jiitu ci salaf ak saxaaba yi ah kay am ñu ko jiitu des na ko leeral tayib ñeenteelu point ñetteelu point bi moo di euh, euh, ñetteelu point bi moo saaxibu taqdis dafa site ñu baree bari euh, saaxibu taqdis daa am ñun cité ñoo xam ne da leen maanaam bi muy leeral taarif maanaam bi muy indi ahlu tasawuf taarif bi ñu taaj tasawuf da leen a cité ba pare nag de euh, teg seen kow tuuma ju rëy rëy rëy rëy euh, saaxibu taqdis dafa dafa leen cité teg seen kaw tuuma ju rëy rëy rëy rëy tuuma jooju moo di دا وخني دا سيتي بشر الحافي ميغا خامني ميغي فاتو اتوم 227 سيري سير بن عبد الله السري ميغي فاتو 293 283 سيتي سي عبد القادر جيلاني كتاب مبري لما وقت تيتي مبري الغنية لطالب الحق سيتي ابي بكر من الشبلي شبلي من سيتي سيتي ني باري باري باري سيتي شبلي سيتي ابي الحسن الخرقاني cité ñu baree bari daan ñii ñoo jëmbat yàqu yàqute gu am ci yàqute gu man di am rek ñi ñoo ko jëmbat loolu mi ngi ko wax ci page euh, quarante six loolu saaxibu taqdis euh, mi ngi ko wax ci page quarante quatre boog laa bëgg a wax نعم. يعني مؤجد إلى غير ذلك ديسنا من الأسس والمبادئ التي درسوها في تعاريفهم للتصوف الصوفي وهذا الأمر من أكبر من, من أكبر البراهين الضالة على أن الصوفية المتقلبين هم الذين بذروا جذور كل جذور الانحراف في تصوفهم maanaam ñu baax ñii nga xam ne moom ñoom la cité mooy bishrul xaaf bishrul xaaris euh, euh, bishrul xaaf yi xaaf yi ak sëriñ abdul ak sëriñ abdul qadir ak shibli la teg ci ñoom wax ji wax ju rëy wax ji mooy lépp luy yàqute lépp luy xeetu yàqute lépp luy xeetu jàdd lépp luy xeetu wàcc yoon lépp luy xeetu mbon mbon ña nga xam ne ñoo ko jëmbat jàngale ko jëmbat ko mooy bisul xaafi subhanallah bisul xaafi na mu ragale woon borom taala ak Cheikh Nadia Sassouri ak Cheikh Abdul Qadir Jilani tuuma jooju nag gannaaw mooy mooy troisième point bi mooy ñetteelu point bi tuuma jooju ni koy jàngatee moo Euh, dañuy njëkk leeral kan mooy sahal kan mooy ñii mu tuumaal ñooñu nan lañ toll ci nan la leen ahlu sunna wal jamaa jàppe ndax ahlu sunnat wal jamaa ak salaf saalih saaxibu taqdis ni mu leen jàppe noonu la leen ñooñu jàppe wala bu fekkee dafa waroo rek jàppal ni kon moom moo am mazhab bu muy junj moo am mazhab bu muy wax waaye bokkut ak mazhab ahlu sunna wal jamaa ndax ñii bisirul xaaf yi des na leeral des na taxaw ci tar kar mooy bisirul xaaf yi fan la ko ahlu sunnat wal jamaa ahlu jamaa ci jëmam fiñ ko considéré ak fi sahibu taqrir considéré ndax ben lam dit lolou lañu muqarna waye Cheikh Abdul Qadir jilani ahlu sunna jamaa fan lañ ko tek ci ko ahlu jamaa considéré ak mom fiñ ko considéré ndax ben lam dit ni mu ko askanale ni ndax ahlu jamaa non la ko askan Allah nañ ko askanale dit ci nga Elhom Junayd fi mu ko considéré ak fi ko ahlu jamaa considéré ndax benn lam dit Chibli loolu la ñu taxaw kon kenn ku ci nekk dañuy taxaw ca tarjama ak li borom xam duñ ñëw ci sa tarjama waaye li borom xam-xam wax ci yow ahlu sunna jamaa fi la teg loolu bu leeree nañu dinañ xam ni kon ahlu sunna wax yu tàng yooyu ñuy wax ci ku ñëwaat di wax képp ku waxaat lu waroog li ahlu sunna wax ci ñii ak fu mu leen teg wax jooju day nekk bi masabati shaaz wax joo xam ne du nekk wax ju wér ndax da ngaa wuteeg ijmaa ahlu sunna ak aqwaal ahlu sunnati wal jamaa euh, loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy jàngat ci point yi euh, kon Cheikh Abdul Qadir euh, ñooñu mu tudd des bu pare nag ñu ñëw ci ñu ñëw ci istilahaat yi ñu ñëw ci wax ji ci jëmmam kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk la nga xam ne moom la doxalee ci moom ci taarif euh, taarif yooyu noonu ak def ci ay jàngat yu day waar jàngat yoo xam ne da ko woy loolu Cheikh Tidiane Gaye doon wax ne xamlul nusuusi bi ma la tutiq rahimahullahu taala di yenn texte yi lu ñu attunu maanaam indi ab texte taaliq daane texte bi lii lay wax lii lay tekki eh, yenn ko loo xam ne attunu ko man baa koy dégg maa ngi doog a xam nag man maa ngi doog a xam dëgg-dëgg ci ne li taxoon Cheikh yàggee doon wax ca teere mba di wax ne xam lu nu suusi bi maa laa tutiiq mooy jël texte yi di ko yenn lu mu attunu boo indi ab texte benn borom xam nga daan ne ah kon kii li mu wax kon lii nga say déggee lii lay bëgg wax loole ku ko bëgg xam demal ci page 44 ginnaaw bi mu dox taarif bi lam wax ni taarif bu nekk loolu lay joxe mu nekk ay tuuma yu rëy rëy euh, saaxibu taqdis moom moom moom moom xaw ma fan la waaye fii moom daa xalamu bokk na ci bërëb yi mu gën a xalamoo ci yi ñu rombagun euh, wa ala kulli xaal yi sabi borom bi tabaraka taala euh, bu ñu ñëwee tomb njëkk bi ñu ngi lu baax ci dafa am ko nekkoon ci néeg bi doon wax moo tax ñu arrêté woon tey bu ñu ci tomb jëkk bi saaxibu taqdis ci page 39 volume 1 dafa wax ni وهذه الانطوائية وهذه الانطوائية الصوفية تشكل بعدا ذا أثر سلبي بالغ في منهج في منهجية التصوف وأهله فوقعوا بسببها في اضطرابات خطيرة جعلت عددا عددا من المتصوفة يقرر أن التصوف ليس له حدود ولا حدود ولا ضوابط ولا حدود وأنه خاضع لكل ما يضيفه إليه المتصوفة من طقوس وتعاليم صاحب التقديس إن في بين بين وخ إن في بين أسطورة أسطورة بموري آه نين تصوف ñoom ahlu tasawuf ñu bari ci tasawuf dañu rek dañoo euh ci ne tasawuf ndànd fay-fay la bo xamne amul ay dawaabit amul ay loi amul ay hudud amul ay tank amul dar lu ko tank mom dal khadi'un li kulli ma yudifuhu ilmu tasawuf lépp lo xamne ne mu tasawifa yi njàmbaas nañ ko ci bir ci am jangale wala ci am déggin wala luñ mën di am rek lépp lu way for ci Allah ba boo ko mu bok maanaam tasawuf tasawuf dal pare pour talaqi lépp lu mëna jóge ci Allah ba nee na lii nee na lii waa tasawuf ñoo ko reconnaître ah ana kan moo ko wax ci ñoom ndax da lay indil xafaal yi ndax da lay indil mag ñu baax ña ndax kat ci ci njëbeeg dafa waxoon ni lépp lu muy toxal da koy toxale ci da koy toxale ci la ñu tadwiin ñoom tasawuf ahlu tasawuf léegi ndax da koy toxale ci xasaali wala mu koy toxale ci Qushayri wala mu toxale ko ci waram xam-xam yi wala mu toxale ko ci Ibn Arabi wala ki ñu ñu doom déedéet day ñëw ci muasirun ñi nga xam ne ay muasirun lañ ci mujj ñii nga xam ne mu tànn ci ñaar képp ñaar la tànn daal ni tasawuf yi mu tasawufa yi ñu bari ci mu tasawufa yi reconnaître nañ loolu loolu benn loolu benn xeet mu raawax la boo xam ne mat naa xam mbokk yi euh, kii liir bi faaw daa war di am comprendre ci mu raawaxaat yi nga xam ne mooy am ci yenn baadi sasawaan yi euh, loolu mat naa xam maanaam léegi-léegi kii wax kii bind euh, am na baat yoo xam ne da koy léegi-léeg kii bind am na waat am na waat yoo xam ne dakoy koy da koy da koy indaale waat yooyu ko boo ko bàyyi xel doo doo comprendre mu raawaxaat yi nga xam ne ñaaree kii bind téere te bëgg a def subha dana ko indi ndax dafa wax ni ñu bëree bëri ci tasawuf xam nga fii daf ñu bëree bëri waaye waaye boo dee ci boo posé ci kam dafa wax ne ahlu tasawuf ci jëmmam ñoom ñëpp ci jëmmam ahlu tasawuf ñoo reconnaître seen jëmm ne euh, tasawuf ak ndaa dafay fay la amul ay boobi amul ay xaduut te it du ci indi kenn ku dul ñaar ku dul ñaar ñaar képp la cay indi tey Euh, léegi nañ d'accord ci ne ñaar dong indi ñaar ñooñ ñooy kan bu fekkoon ni ñaar ñi sax li nga wax ñoom moom lañ wax li saaxibu taqrir boobu ñaar ñooñ moom lañ wax bu fekkoon noonu la demee kon boobaa dañ naan kan moo wax li ma li mazhab suufi la ndax mazhab suufi ci jëmmam waaye nag saaxibu taqrir dafa teg benn règlement règlement bi des na ci ñëw ci jotaay bii règlement bu mu teg règlement bu mu teg mooy lan mooy daa wax ne moom li muy bind ci tasawuf di ko askan tasawuf ne mooy mooy mooy jàngalu tasawuf xoolu ci ba xam def nañ ko wala defu ko xoolu ba xam kenn ko def am na kaa daal lépp loo xam ne ñoom tadwiin nañ ko rek gis nag ñoom koo tadwiin rek moom da koy askan la boo xam ne ci mën a xoju bas al ilmi du règlement boo xam ne ci insaaf règlement la boo xam ne ci wàlluk munazara loolu loolu ci qawaid adabul munazara ba ci qawaani loolu bokk ca mooy bu fekkee da nga fekk am manhaj kenn nit ñoom daal wax daal da nga ne kon lii mooy xalaatu mazhab booba bu fekkoon ne loolu la euh, kon benn mazhab du taxaw ndax mazhab bo dem amna ko xamne shad la ahli sunna wal jamaa ci pass pass bo demee amna ci ño xamne dañu jàdd ci ñom ibnu khuzaimah bo demee ci ibnu khuzaimah wala nga dem ci ibnu abd albar dañu jàdd ànd ak ànd ak loolu lépp taxul nak lañu jàdd wala lañu wax ñu askanal ko manhaj ahli sunna manhaj ahli sunna wal jamaa al malikiyya bo demee ci mazhab malik amna ay ben ben ño xamne dañuy wax ñen ci ñom ño xamne dañuy faral di wax ay aqwal yo xamne shazala wax yo xamne ne la lam moo tax war xam di tabi ay di ko tanqih di leeral wax yi nga xamne ne la ndax bu fekkone ne kenn ci ñom bu waxe rek lam wax dañ koy askanal mazhab malik kon lolu du man hay bax du man hay xëju al ilmi amul insaf waye nañ d'accord ci ne bu ñaar ñi wéré ne li nga wax mom lañ wax lolu lolu la ahlul wax kon ahlul tasawuf nañ d'accord maanaam nañ def li ñuy wax taslimatul jadal ñi xol li nga soxal mo ne ñi nga xam ñoo wax ne tasawuf amul amul amul ay règlement waye ak daan da fay fay la ke ci nek moy Ahmed Bahiyat euh koku mo talif mi ngi talif ben téré tuddé ko Bihaarul Hubbi inda sufiyya ñi na ci la doxalee tax ci ba fekk ba nag moom indiwul lépp da ngay xamne fi fii tadlis da fi am fa Ahmed ko ko bëgg a xam nag da ngay dem nga lire pasran na fi taqdi asqas bo pare nga dem ja bi bixaarul hubbi indi sufiya nga lir lu ko jiitu lépp lépp lépp lépp des na ci ñëw ahmad baxjit mi dafa wax ni mom da mom sahabu tax da wax ni ahmad baxjit neena na ahmad baxjit ginnaaw bi indi ikhtilaf gi am ci asul tasawuf da wax ne وهذا معناه أن الصوفية يسيلون الباب أمام من حتى أمام من يسألهم عن معنى اسمهم وهذا دليل على أمر من أمور ثلاثة إما أن يكون التصوف سر وإما أنه أمر خلافي بحت وإما أنه متعدد الجوانب نينا من كجلة تيرم بدي بحار العنبي عند صوفية نينا أحمد داوحني لي لمي تاكي موي دسوف أهل دسوف دني تج بنتو ما أم دني دني ما أم دني تج بنتو بي كي خانا مو تاخو دين لاج يين سين تروي معنى بلا لي تاكي ما أم ما كي تاخو سخ دين لاج أهل دسوف نينا يين يين تسوف يين أهل دسوف سين تروي دي أهل ولا صوفية maanaa bi lu muy tekki la fan la xaro la mooy josaan li mais al tasawuf sax dañuy maanaam dañuy tëj bunt bi ci kanamam euh, dañuy maanaam dañuy tëj bunt ci kanamam nee na loolu nag boo amee leen mu ne Ahmad Bahjat ma wax ne loolu boo amee lu muy tekki maanaam loolu ñetti mbir yi benn ñetti mbir lay tekk benn la muy tekki mooy kon tasawuf daa nekk ab daa nekk ab mbóot am maanaam lu nëbbu wala mu ne wala tasawuf daa nekk mbir moo xam ne mbirum ak lu wuute la ak maam ak wuute rek la daa ak wuute la ak wuute wala mu nekk loo xam ne mutaaddid jawaanib daa bëri ay côté maanaam daa bëri ay anam mu nekk loo xam ne daa ay anam waaye léegi euh, wax ji léegi wax ji li taxoon nga indi ko mooy firndeel ci ne tasawuf ñoom ñoo reconnaître ci ne tasawuf euh, seen mazhab bi amul ay xuduut amul ay dawaabit maanaam ak ndaan dafay fay rek goo xam ne amul lu waay soog mu nekk waaw tos texte bi nga xam ne moom la saxee bu taxriij doxal waaw ana fan la Ahmad waxee ni moom tasawuf reconnaître nañ ci ne euh, maanaam reconnaître nañ ci ne tasawuf ci jëm moom amul maanaam lu waay sos mu bokk ci lu waay sos ñu boole ko ca amul maam ndaan dafay fay la maanaam ku ko liir danga xam ne newu ci waaye nañ dem ci téere ba sax far euh, la waaj doon wax dëgg-dëgg ak li waaj bëgg a wax ñu leeral ci ne li ñuy wax xamlu nusus bi ma la tutiq moy jël taxi yeen leen lo xamne ne attanuñ ko mo am ci taxi mo am ci bërëb bi mbokk yi boo demee ci téré téeréem boobu di bihar hubbi pas 43 euh ci tabu bi ma yor da ngay fekk waji wax ji dafa am lu ko jiitu lu gudd gudd lo xamne mom la waji ji won don ko leral moy docteur muy Ahmed Bahja da da ci pas 43 da wax ni ma huwa aslu kalimati tasawuf da wax ni aslu kalimati tasawuf mahallu xilaafin bayna al ulama آه، هناك القائل بالشقاق الكلمة من أهل, من أهل الصفة الفقراء الذين كانوا آه، ينزلون في جانب المسجد من وليس صحيحا دا واحد أهل تصوف لك باطل تصوف وزن انتين فن فن لجوجي فن لخرو لو افكتف ما لول أمنا فولو واحد يتعمل ايه من نك ني واخ ني باطل تصوف لجوجي دنك خارو كي الصفة ني لول دمان وير نخي لغة العربية ننغوكو آه، أحمد دادي واحد ني موي أحمد بحجت موم daal di waxaat ne am nañu wax am nañu wax ne tasawuf lafz mustaqun min safa ci page 41 am nañu wax ne tasawuf lafz bi daa mi ngi xaroo ci ab safa gi fiir ak fell nee na am nañu ko wax nee na loolu am nañu ko wax mu toxalaat daan ni ci mujj gi mu ne wali walil qushayri fii la wax ji nekk na mu ne walil qushayri ra'yun latifun ra'yun latif fi latif baax latif mën naa xam fi taarifi tasawuf annahu la yuxaawil aslan taarifahu ويرى أن اسم تصوف لقب أه، أحمد داني قشيري نعم أبي القاسم القشيري مم أمن جس جس مكور جس جس بسو لطيف في بمعنى الشو أه، أمن جس جس بسو كتاب التصوف كلير الباب فن لخرو جس جس بمشي أموي مم دا سخلني لجن لجن كتاب مم موي باتو تصوف أمول فم خرو مام أمول إشتقاق فم خرو amul xiyaas buñ koy delloo ci loxol arabiya amul fu mu xaro waaye dañuy jàpp ne ab laqab la rek ak dàkkantal la boo xam ne dañ koy woowee ña nga xam ne ñoo nekk ci tasawuf waaye amul fu mu xaro lii la wax te nee na lii rayun latif maanaam gis-gis bu rafet la gis-gis bu xóota xóot la maanaam moom gis-gis bii da ko moom da ko rafetlu ginnaaw bi mu toxal wax jooju nga xam ne moom la ko Qushayri wax ca téeréem boobu euh, léegi nag آه، كرا أحمد بحجر وهنا ومعنى كلامه أن التصوف لقب لا يسأل عن معناه أو اشتقاقه كما لاحظ نينا في وحي قشيريجي جينا يخمين لكم تصوف لم يتكي ما وحي قشيريجي لم يتكي ما يتصوف لقب لا معنى بعض بخان دين كو جويل واي ديسو لاج لموي معنى بي اك لموي ما بعد فن لخارو اصل بعد فن لخارو نينا وحي وحي قشيريجي لولي تكتلي ci la doog a waxee nga xam ne moom li moom la saaxibu nga xam ne kon waa ji li wax lépp lu aj ci wàllu ishraq bi waxut tasawuf de la mu lamboo de waxut waxut ci wàllu qawaaidi tasawuf ahmad bax ji waxut waxut waxut dara ci qawa waxut ne fii qawaaidi tasawuf dafa am ak ndam dafay fay maam ak ndam dafay fay boo xam ne lu waay sos bu dugg ca biir lu waay ñambaas bu dugg ca biir amul ay qawaaid amul lu ko tënk moom pare na daal pour accueillir lépp lu waay sos rek mu dugg ci biir wax ko de maanaam bunt bi mu doon waxee sax nekku ci bunt boobu loolu maanaam wax bu mag a mag la boo xam ne saaxibu taqrir da ko def lam doon wax mooy ci wàlluk istixaaqul lafd mooy baat bi ci wàlluk arab ci wàlluk arab baat bi buñ ko doon wutal cosaan ci luxal ci gën a anam ci fan lañ koy dugal fan la ñu wax ne fa la baat bi xaroo loolu la sa loolu buntu boobu la ubbi woon waaye ubbi wutoon buntub xawaayu tasawuf wala di ubbi buntub di leeral seen tasawuf wala di wax ne tasawuf ci jëmmam daa am ak maanaam nekkul am ay règlement nekkul ay xawaay te bu ko waxoon ne du ndax waram xam dafa jëmoon dañoo def ay téré leela ci ne tasawuf dafa am ay qawaid tuddee ko qawaid bi tasawuf wala wala bar yo xamné day tekki day tekki ni tasawuf amna ay qawaid comme ne comme ne comme ne koy leerale ci karam inshallah taala ci euh ne ko zarruq defé waaye nga gis ne fi mbir mu rëy fi am moy waji waxuton ci wàllu qawaid waaye nañ ñëw sax nañ njëkk jàll nañ jàll sax ci jëmmi texte bi nga xamné mo la sahibu taqdis koppati bàyyi bàyyi la ko jitu leerul buntu bi آه، كل واحد هذا معناه أن الصوفية يسردون الباب, آه، يسردون الباب حتى أمام من يسألهم آه، وهذا دليل على أمر من أمور ثلاثة من وخي قشيريجي لم يتك ما يبين لك نقي ليتك ليتك بين تصوف دا نيك سكر دا نيك لو نب ما خم خم تصوف دا نيك لو نب دا نيك مور بو نيل نب تك و نيل وخني كين مونو كو خم واي لو نب لنجي جوبلو موي دو خم خم لا بو خم ني دنج كو دنج كو ييك maam la ci ëpp dañ ko yëg donte dañ ko jàng nag mais la ci ëpp des ko yëg mu ne benn loolu la teg men benn tasaw sirru la wala mu nekk amrun xilaafiyin wala mu nekk mbir moo xam ne dafa ak wut daa wut ak wuute daa am mbir mbirum wute la wala mu nekk loo xam ne daa bëri ay anam léegi nag wax ji yëmul foofu da mu ne kal fan kal yaani kal fan li ma ci ñor sax mooy wa amma wa imma annahu mutaaddidul jawanib benn tasaw daa nekk loo xam ne daa bëri ay anam lii la waa ji wax maanaam euh, fii li li fi taxaw seetlu mooy bu saaxibu taqdis dafa indi woon texte bi ngir bëgg a wax ni ahlu tasawuf euh, te nag ñu leer leen ahmad bajëri mii du ab suufi waaye daa ànd ak daa am lu mu ànd ak ahlu tasawuf rek waaye du suufi kon man nga ni moom moom indiwu bi sax bi kenn kenn ci ahlu tasawuf indiwu ci kenn ñim indi ñëpp dañoo nekk ñoo xam ne dañuy maanaam dañuy dañuy défendre tasawuf dañu maanaam position bi ñu am ci tasawuf ak ñoom adiya u salafiya position bi ci am du benn maam ñoom dañoo am tawassut dañoo digg doomu ñaar ñi mu taxal kenn du ci ab suufi Ahmad Badiane moom du ab suufi lam yakun suufiyan ci biir téere gis ci moom mooy dal ci ahlu tasawuf ci mbir yu bëree bëri donte nag da nga gis ci biir bi xaaru bi da gis mu ànd lu bëree bëri moo tax ci njëlbeen gi da wax ne la las naa ma ñun ànd ñu tasawuf ànduñu kuréel bi nga xam ne day dal tasawuf ànduñu kuréel boobu waaye ñun dañuy atte ñun dañuy atte ci dëgg kon problème bi mooy bu fekkee ni saaxibu taqdim daa wax ne ahlu tasawuf ci jëmam ñoom reconnaître nañ wax nañ ni ñun ahlu tasawuf suñu madhab bi amul ay qawaid lu waay njàmbaas mu dugg ci biir lu waay xalaat lu waay créé lu waay sos lu waay euh, maanaam for ca àll boog dugalee mu dugg nangu nañ ko bu waa dañuy considéré comme comme fikiran suufiyan gannaaw yow loolu nga wax da nga waroon indi da nga waroon indi kay ay ay woromi xam ko ci ahlu sawf da nga waroon indi ko demee ne Ghazali wala Qushayri wala Ismail Abi Ismail al-Harawi wala nga indi wala nga indi al-Harith al-Muhasibi ci ñi ñi jiitoon wala Abi abd Abdurrahman al sulami wala Abi Ishaq al-Kala wala Abi Bakr al-Kalabazi wala ñi la jiito waaye dem indi ñoo xam ne sax nekkuñ ay don tan donte nag mom ahmed Bahji dafa am ra'yu dafa daa gis ne tasawuf am na lu ci baax waaye am na lu ci nekk moom lu ci ci gis-gisam moom waaye nag du ab suufi loolu mat naa xam keneen ki mu doxalaat te ci laa ñëw ba boo paree kooku du ab suufi kon gis nga ni wax la joo xam ne daa tar dafa dafa dafa def muraawaxa dafa nax ki nga xam ne maanaam dafa ne mooy mooy jàng téere ki nga xam ne mooy jàng téere bi bootu mën naa foog ni kon ki wax lii bu fekkoon ne sax wax ji sax nam ko waxee noonu la ki wax lii kon kooku ab suufi la kon suufi yaa ngi reconnaître seen bopp ne seen madhhab bi ndaan dafay fay la way ñu itam xam nañu ay sufiya nekk ñam fa bàyyi bàyyi na fi zarruq jamono jooju xamna ni zarruq al tasawuf ni ay teer tudde ko xawaid tasawuf moy le ma tasawuf loi yi tasawuf yi ma yi waye bàyyi na ko dem indi ñoo xamni ne duñu ay sufiyank waaye nag moom sax leer nako ko ndax boo xoolee ci biir mi ngi nan la ñii ni ni danuy dimbal tasawuf waaye bokku ñu tasawuf dañuy bind ay téere di défendre tasawuf ci ay mbir xam nga nit ki man lay défendre tasawuf wala mu défendre kenn ci tasawuf waaye fekk na mom du af soufi waye da koy défendre ra gis ni kat kurel kuréel kuréel yi lay sukam dañoo parparloo képp waaye li ñu wax ci mom du ci bëri amul waye mom nak du ab suufi Ahmad Bahjaji mii da caa nak euh ci pire mi nga gis ne kii mënta nekk ab suufi waaye dafa am lu muy défendre suufi dafa am lu ànd ak ñom lu bëree bëri lo xamne ñom lay défendre kon lool loolu mooy muraawaxa bu ñëk bi nga xamne sahibu saaxibu taqrir nako moy ko muy da lay indil ne la di wax na di wax na fekk na kooka du ab suuf mën na wéne nekk ab suufi bu nekkoon ab suufi te jëmmam jenn wax deesu ko àtte ab mazhab ci ci ne loolu mooy mazhab bi mooy seen gëm-gëm déedéet abadan waaye lii mooy li nga xam ne moom la waa ji wax léegi léegi lii nga xam daa wax ne benn tasawuf mbóot la wala mbirum wuute la wala daa bëri ay daa bëri ay anam léegi lii moom fan la Ahmad Bahjani waxee ni tasawuf mbir la moo xam ne xaatiun li kulli ma yudifuhu ilayhi almutasawifu min taalim wa tuquus comme ni ko saa bi Ehm, te tasawuf mbir la moo xam ne lépp lu waay sos ma nga ci biir lépp lu waay sos rek boo ko ci boo ko ci njàmbaasee mu jàll amul ay xawaayit amul ay xuduut moom daan xam ne daal daa ubbi ko yaatu pare na pour wala mu wala mu créer ko wala mu sos ko nu ko neex rek lu waay indi rek la bokk ci tasawuf na wuute alquran sunna na bokk ci teg bi fan la nekk loolu wéru loolu loolu loolu loolu tuuma ju la loolu dafa tuumaale Ahmad Bahjat loolu newu ci loolu waxu ko te it ko nag am ba de waxé wutoon ci walu madmun suufiya wala madmun tasawuf lam dañ waxé ci walu istiqaaqul lafz dañ waxé motax moo faaw nga dem ci téré ba lire lako jitu lépp kon lolu am leunt la bo xam matna xam kon sahibu taqdir batay tey indeegul kenn gi ko wax ne ñun suñu ngir mi laysa lahu hudud wala qawanin wala dawabit amul amul ay amul ay règlement amul ay hudud way am daan fay batay tey indeegu ko kii mu indi mu fekkone sax wax na lim wax lim mu wax toxal loola la wax kii mi ñu def sufiyank muy ahmad mi ñu def loolu moo ko moo ko fàtte woon na leer ci njëlbéen gi du ab sufiyank waaye nag li daa ànd ak ahlu tasaw ci ay biir yu bare bari leen defandal ba àgg yite boo ko leer da nga gis lu mel noonu pété bayu 233 pages la euh, kon loolu kon la muy tekki mooy ñàkk insaaf ñàkk amaana ilmiya ci baxs loolu da gis ne feeñ na bu baax a baax a baax mooy jël ab texte yéen ku lu mu attunut wax ne kii kat daa wax ne kat ahmad ahmad baxjeet nee na tasawuf amul ndànd fay-fay la boo xam ne amul ay qawaid amul ay xudud amul ay amul ay règlement lépp lu waay sos rek bu bu ñëwee dugg ci biir fan la ko Ahmad wax euh, nga ni mi ngi ko wax fii nii ñi àgg ci texte bi nga gis ne texte bi jëm waxul sax lu mel noonu baatub xudud wala baatub euh, lu mel ay dawaabit wala luy junj ne daa bëgg ne tasawuf amut euh, amul ay lu waay sos rek njàngale mu waay waay sos ci biir loolu newu ci loolu kon la muy tekki mooy ñàkk insaaf ci ban manhaj bahth al ilmi wa kadalika xamlu nusuusi bi ma la tutiq ni ko Seex Tijaan di waxee mooy jël texte yi leen lu ñu attanut indi ab texte euh, mu bu dee ci luxal arabiya day mel da ci am déggin woo xam ne déggu ko kon loolu wérut waaye wéru na moo ko wax sax ko daal di ko asuuf euh, loolu kon daa ma taxam nga gis ne bi mu xasee ba indi ustura boobu ustura boobu mooy tasawuf ahlu tasawuf ñoom reconnaître nañ ci ne tasawuf amul ay qawaid amul ay règlement amul ay loi moom daal daa nekk manhaj boo xam ne lépp lu waay sos rek lépp nga xam ne setteewoo dara lépp lu waay sos maa ngi ci biir amul ay loi ginnaaw bi nga xamee ne wax na loolu nga gis ne faaw li dara lu may mu indi ahlu tasawuf ñan ñoo ko wax ñan ñoo xam ne suñu madhab bi amul ay loi amul ay xudud lu waay sos ma dugg ci دولا خلال الحارث بن آه، الحارث المحاسبي دولا خلال من بشر الحافي دولا خلال أبي عبد الرحمن السلمي أكنينا يدون يوم صوفيي دولا خلال الكن إبراهيم أدهم ولا فضل بن عياد أكنينا يدون يوم باشي ñu mujj الغزالي alxafaali waaye ñam lay taxalal mooy docteur Abdul Karim al عبد docteur Abdul Abdul Karim al Khatib daa bokk ci ñi nga xam دي, dañuy bind di di di daa bokk maanaam di défendre taxaw ci ay position léegi lan moo euh, laaj bi laaj bi nga xam ne mooy posé foofu mooy di lan moo tax gin lan moo tax ginnaaw bi nga xamee ne wax nga ne ñoom rek na ko wax waxal nañ ko seen bopp lan moo te mu dellu ca ummahaat ya téere yi téere ya téere yi mag ya ñëw ba ci koo xam ne daa bokk ci maasir docteur Abdul Karim euh, Al-Khatib nga ñëw ci moom ci ab baxte bu mu bind ci jamono ji nga ne ci ngay sukkandikoon ginnaaw moom lu mu wax la rek nga ne nga ne kon li dox li kon kee moom bu dee ahmad baxaj te borom bi xaarul xib moom kooku daanul ndax wax wax jooju loolu newu ci texte bi da koo yenn lu ci nekkut la muy wax al texte bi wax du benn te ñaare kooku du suufiyank maam day defan suufiyank bu fekkoon moo ko wax sax jëmam du anga suufiyank ndax ku dul suufiyank boo wax ci suufiyank képp kii nag day moom it docteur Abdul Karim al-Khatib moom kazalik moom daa wax ne fa amma manahiju tasawuf fa innaha aktharu min an tudbata aw tultaqa inda hadd آه، لأن تبعة التصوف تسمح للمنسل أن يبثوا من المباهي ويرسموا الطرق ما يسمح لهم تفكيرهم وما تتسع له مداركهم وتصمو إليه أشواقهم ومن هنا كان لكل شيخ طريقته التي يسلكها من اللي وحجي ما نعم جن وحجي دكتور عبد الكريم آه، الخطيب جي جن ما نعم آه، موي تكنيكون علم تصوفي لنجم لولو كوني خمنا دو إنصاف كمن هجي بس العلمي أبكي للبقى يرد كي لنجي فاك لنجي خمنا جاغن لكو gëm ko nag nga rab leen ci waaye la nga xam ne kenn donc te sax bu fekkoon sax kooku daa bëgg indi suuf waaye ku koy maanaam ku koy képp la waaye bokku euh, loolu ku ne xam ne loolu ku ne xam ne ni euh, kër yi am ustuur pare bëgg koo layal loola maanaam loolu mooy waral lépp loo defee ne war naa mën a dëggal soo ji di nga ko indi euh, waa nag li mu wax bokkut ak li mu wax li mu wax waxut moom daa wax ne wa tasawuf qaadiun docteur Abdul Karim al daa wax ni mom sahibu saaxibu taqdir daa wax ni tasawuf ñom tasawuf ñom wax ni lépp dal lo xamni nit xalat nako wala mu kéré ko fu ko mën jëlé rek kul amul bayu dara lépp lo xamni waji bu ko ci njàmbaatee day day dugg amul ay xawaayit amul ay usul waji tax bi wax lu tekki wu waa waji li wax modi moy ko mu jikki moy li wax modi ahli tasawuf tasawuf xam-xam la boo xam ne te waxut ne waxut waxut waxut mukk ne da amul ay xawaid amul ay règlement waxu ko li mu wax ak li docteur Abdul Karim Al Khatib wax du benn moom li mu wax ngeen bàyyi xel mooy lépp lu waay sos amul ay amul amul ay règlement amul ay dawabit waa ji waxul loolu waa ji wax ne aksar mi xam-xam xam-xam tasawuf ëppante naak nag maanaam niveau moo gën a kawee ñu koy tënk ci ay règlement loola la wax aksar min am tudbata aw tubtaqa inda hadd niveau xam-xamu tasawuf na mu rige ak na mu kawe ak na mu xóote gën naa kawe fuuf ñu koy tëgg ci ñu ko ñu am fuñ koy fuñ koy tënk waaye nag waxul mukk ci ne tasawuf amul ay qawaid loolu abadan même bu ko waxoon tamit daa wérum di te bu ko waxoon ki ko wax tamit nekkut ak nekkut maanaam da day bind ay téere di dimbal tasawuf mu wax ne tasawuf maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk ci tasawuf ñi nga xam ne ñoo nekk ci manhaj bi ñaa xam ne ay suyuux lañ ci manhaj bi moom suyuux ñoo tax ñu wax bëggut a wax awaam yi te saaxibu taxis moom li wax moom awaam yëpp dañ ci duggaale ndax bu fekkee da da ko istixra ne lépp lu waay sos moom awaam yeeg ñi nga xam ne duñ ay sëriñ ñi nga xam ne xamuñ dara lu ñu wax rek dañ koy boolaa ci tasawuf waaye waxu loolu dafa wax ne suyuux yi suyuuxu tasawuf ñoom seenu déggin ci diine ak seeni madaarik seen nañuy déggee seenu déggin ak seen tolluwaay seeni xaalaat mooy wuute loolu moo tax nag kenn ku ci nekk fa nga toll anam nga nga toll ci maqaama ak ay manazil noon yi ngay waxe nga xamne fofu la sa fikru tollu toll loolu nak ay jan wax ñoom moo koy gën firi moo koy firi moy wax ji nga xamne ne Qushayri yi moom wax ci ar risala ne tasawuf ñi nga xamne ñoko don ñoko don ta'rif bo doon taarif boo gisee seen ibaara da daal di wuute seen manhajul daal di wuute mooy kenn ku nek kenn ku ci nekk anam nga mu tolloon ndax tasawuf ay manazil la dafa dom daa day ay manazil la moo tax abi ismail harawi taaj tey bu jox manazilu sairin sëriñam di ibnul qayim charxe ko tuddee ko madaariju salikin loola lay wax waaye waxut mukk ci ne tasawuf amul ay luwa maam texte bi daa amul fenn fu waaji waxee ne tasawuf amul ay luwa déedéet dafa wax ni wuute ay déggin ak wuute ay tolluwaay ak ay madarik maam ay xam-xam ak ay ashwaq ak ay ak ay misaaj loola moo waral kenn ku ci nekk yoon wa ngay jaamoo yàlla mën xaj ba ngay jël ngir soobu yoonu borom bi tabaraka wa taala ngir am ngërëmam day daal di wute mën nay wute nag ci yoo ñoo bokk li ñuy wax maanaam yoon yoon yoon yoon wi ñuy jaamoo borom bi taala ci anam mën nañu mën nay wuute am na ci ñoo xam ne ar riyaada am na ci ahlu tasawuf ñoo xam ne ar riyaada moom lañ gis ne mooy yoon wi gën a gaaw ci ñoom mooy mooy xeexal seen bakkan am ñoo xam ne ashukru te loolu Cheikh Abdul Aziz Dabakh moom mi ngi koy wax ci téeram ci ci Al-Ibriz comme nekk Ibnu Mubarak soxla ci moom ashukur sant yàlla moom lañ gis ne moom moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci ñoom am ñoo xam ne alxawf ragal borom bi tabaraka wa taala fa ñu toll ci seen niveau moo gën a gaaw ci ñoom ci yoonu borom bi taala muy ragal yàlla am na ñoo xam ne am ñoo xam ne almuraqaba moo moo moo gën maanaam dafa bëri ay yoon yoo xam ne kenn ku ci nekk daa am yoon wuy gën a jàppale ci yow yoon woo xam ne mooy gën a jege ci yow لوجع سلام وجه حديث وكل الميسر لما لما خلق له لول لا دكتور عبد الكريم خطيب دي ليران فينا واي وخل موك تكسي بتس في جيس امول فن فو وادي وخيني تسوف تسوف اك ندان دا فاي فاي كوم نغه وخي ليس له ضوء ولا بحلول كون لولو توما جو ري ري لا واي نك لا تي غنا ييمي موي صاحب التقدير بامو دان لا فخني فاذا علم باحث ان صوفيا انفسه اعترفوا بان نحلتهم لا ضابط لها مام نيار نيت لا اندي نيار نيت ني مو اندي بور مو فير دم لي مي كان بن اي سفيان من كان ابو سفيان مم دا غير جيت مو جال سفيان كلو مريبر دوت نك لين ديفاندر ا كان شي مو خلاص انا واجب تخول مو نك سفيان دي بن اي تير دي دي بن اي تير ليرال مواقف مواقف التصوف واي ñaar ñi la indi ñaar ñi la indi da na rek fa iza alima al-bahith yu xolal ta'liq bi commentaire bi fa iza alima al-bahith anna as-sufiyyah anfusuhum kon nak ginnaw ñaar ñi wax nañ li kon kat bi bu xam na ni kon ayatu tasawuf ñom reconnaître nañ ci ne ñoom seen seen mazhab bi amul amul amul ay hudud amul ay règlement amul ay charte subhaana malik al quddus lii mooy lan billahi alaykum bil insaf loolu mooy lan nan ngay waxee ne ahlu tasawuf ñoom rek ne ahlu tasawuf ni ñu yaatoo seeni téere seeni mudawwanaat ni mu bëree te yaatoo yow bi ngay doog a tàmbali yaa ngi doon yaa ngi doon ixaala ci allumaa yaa ngi doon ixaala ci arisatil qushayri yaa ngi doon ixaala ci ci kashful mahjub yaa ngi doon ixaala ci téere yi baree bari ci kutubu suufiya euh, bi nga ñëwee indi fi benn ustura bu rëy rëy moo di ahlu tasawuf ñoom ñoom seen jëm waxal nañ seen bopp ne suñu mazhab bi euh, tënkuwut ci luwaa luwaay neex def ci la bokk ustura bu rëy boobu tuuma ju rëy nga mën koo waral a layalee lu bëree bëri ngir àq yi bañ laa topp nga war a fexe ba indi foo xasaali fu ko xasaali waxee wala fu ko xosayri waxee wala fu ko mën a maanaam abi ismail alhara waxee wala fu ko alxaaris ibn asad waxee wala fu ko shaaraani waxee waaye nga indi ñaar ñoo xam ne duñ ay kenn ki moom du ab sufiyaan moom moom moom la muy daj sufiyaan kenn xëpp nu toll ci téere boobu loolu nag ànd ak ñoom ci ay mbir yu bëree bëri ba pare nag la mu wax ak li nga wax du benn ñaar ñi nit kenn ku nekk la wax la kenn ku ci nekk la nga wax ak moom li mu wax du benn da ngaa def xam lu nu suusi bi ma laa tutiq mooy jël taxi yenn ku lu attanut ba pare nag daal indi sa taaliq mooy ne kon lii ma indi ni mooy tekki ne kon ahlu tasawuf reconnaître na ci ne ñoom seen madhab bi subhanallah loolu loolu inna hada la shay'un ujab kon loolu mooy tekki ne wax jooju moom wérut ñaar ñooñu waxuñ loolu te buñ ko waxoon tamit taxul mu wér ñaar ñi muasiruna yi ci taada ci muasiruna yi bàyyi waram la ñu bind ñoom ñoo ci muasiruna yi xam ne dañuy bind di leeral seen gis ci tasawuf donte kenn ki moom daanaka bokkul ci tasawuf sax boppam du far te it la ñu wax ci texte bi ak yow li ngay maanaam li ngay wax du benn loolu la muy tekki mooy ñàkk insaaf ci baxs baxs al ilmi manhaj baxs al ilmi ñàkk insaaf ci manhaj baxs al ilmi lay wane waaye li gën a yéeme ci mbir mi mooy saaxibu taqdis moom weddiwaat na ni ahlu tasawuf maanaam waxam ji ustura bi nga xam ne moom la fi indi mooy ahlu tasawuf seen madhab bi amul ay qawaid amul luwaa moom loo sos rek boo ñëwee mën naa dugg ci biir la ci gën a yéeme moom weddi na ko dees na ko leeral saaxibu taqdis ci jëmam boo demee ci volume 1 page 361 ci suuf gi moom da lay wax ne rek ginnaaw bi nga xamee ni rasal na kenn ci ahlu tasawuf ku ñu wax Zunnun al Misri muy Zunnun Sawbaani Ibrahim al Misri nga xam ne kenn la kenn la woon ci ahlu tasawuf moom bi mu ko ratalee daa wax na da ngay gis ci suuf da bi mu bi mu koy tarjuma tarjuma bu gàtt boobu ci suuf gi da lay wax ne la Zunnun al Misri mii moo tudd nag suufiyun mubaalighun fi zuhd shaaraka fi آه، كما كان أبوه من بلاد النوبة آه، نينا صاحب تقديم نينا دون المصري سفيان قال بو جو بو أبل ولا بو جوتالي كي وال أدد لما تي لما تي لما تي لما تي لما تي صاحب تقديم سيجم نينا شارك في تأسيس القواعد الصوفية نينا بوكو نتي نيغا خمني دانيو باتسبيي كي فون كي تك فوندما كي فتك فوندما القواعد التطرف kon contexte bi wedd na ci la mu waxoon ci ne ahlu tasawuf amul eh, amul xawa ma amul ay xawaid amul ay xawa maanaam ay dawaabit xam nga ci page 39 dafa wax ne tasawuf amul ay xawaid amul ay règlement amul ay xawaid amul ay usus ay fondement ak ay reen déedéet moom daal daa nekk loo xam ne lépp lu waay xalaat lépp lu waay sos rek boo ko dugalee mu dugg ci biir moom loolu la waxoon ci njëlbeen gi eh, loolu la waxoon waaye nag ya manam yàggu dara rek ci pas 361 cent soixante et un ne misri day sufiyank la bo xamne participer na ci ta si fil qawaid sufiya mom bokk na ci ñi nga dañu participer ci fondement qawaid tasawuf manam ci tek di ci tek règlement tasawuf kon li ngay deg ci tek bi fofu non moy kon sahibu taxris kon saxal na ne fii nii tasawuf am ay qawaid maam seen ngir dafa am ay règlement yo xamne dañ dañ ko teunk saxal na yit ci neul ahlu ci jëmmam amna ci ahl tasawuf ci jëmmam ño xamne ñom ño ñoo tasis ñoo teg règlement ay qawaid ni waram xam yi tek ay qawaid mazhab malik dañuy am ay qawaid yo xamne ci lañ ni anam qawaid yi nga xamne ci ci lañ ni istinbat nusus yi ni mazhab ahmad ibn hanbal amee ay qawaid yo xamne ci lañ ni istinbat nusus yi mom saxal na fi ni ahl tasawuf amnañ ay qawaid yo xamne ay règlement ay xudut ay dawaabit ay règlement ay loi yoo xam ne ci la ñuy tasise euh, moom la ñuy tasise maanaam mooy seen qawaid ñoom ahlu tasawuf kon loolu la muy tekki mooy saaxibu taxris waxoon na ne wax fenqaloo muy tanaaqud may wax dara par daa cay génnaat la muy tekki mooy da ngay sax daa jubut loolu moom saaxibu taxris ko wax ci bi ñuy tarjumaal ci abdi abdi wax saasi gannaaw moo wax loolu kay te moom tàbbi na ci hmm, laaj bi moo di ndax wax jooju moom day mën day mujj appliqué wu ci kawam ci ci kawam wala moom dafa am mise goo xam ne xaasa la goo xam ne bu bu tàbbi ci tanaqut loola nga xam ne mooy inxiraaf gi nga xam ne mooy natijatu tanaqut moom moom xanaa du daanu ci kawam loolu lépp la bi tekki mooy ñàkk bopp ak it eh, ñàkk ak maanaam am qasd boo xam ne am ay maqasid yoo xam ne du maqasid xasana ci tasawuf ci ci kuréel bi ahli tasawuf eh, kon loolu moom na leer nañu saaxibu taqrir ci weddu wan na ko Euh, moo tax ñaaree wax joo gis mu wax ko rek maanaam bay boo nga tey ci kanam tuuti bal nga génn da nga gis lu da nga gis lu koy dàq comme niñ ko leer raw jotaay yu njëkk ya ba mu saxale ñuy altasoof ci jëmmam ñoom jaamu kañ koy defe mooy seeni sëriñ euh, nga nekk tawil fasil mu saxal si ne altasoof ci jëmmam dañoo xeer ci jaamu yi ni ñu xeer ci jaamu yàlla ëpp ni xeer ci xam-xam loolu ay finqaloo la kon moom fii ne moom zone al misri bokk na ci ñi nga xam ne dañoo participer ci tasisul qawaid sufiya loolu laa bëggoon a leeral gina bi nga xamé nak leer na loolu pare légui nak ñi ñëw ci ndax limu wax nga xamné mënu ko amul leen amul kenn ci ëllëg ko ko mas wax loolu amul kenn ci ëllëg ko mas wax ne tasawuf amul ay qawaid loola loola amul wax jojo mom na leer nañ ci ne kenn mosu ko wax xëy wax la jo xamné sahibu taqdis mo ci jitu mo ci jitu ahlul tasawuf waaye wax wax la jo xamné kenn ci ahlul tasawuf mosu ko wax ginnaaw bu loolu leeree nag nañ dem ci ahlul tasawuf ci jëmam ñom Euh, ndax ñoom dañoo wax ne ñun suñu madhab bii tënkuñ ko amul amul suñ koy tënk amul ay qawaid amul ay xudud amul ay règlement waaye daa nekk loo xam ne lu waay sos rek bu ñëw moom nangu nañ ko lépp lu waay fore ca boo ñëwee boo ci dugalee rek ñu nangu ko ndax noon na demee ahlu tasawuf ndax ñoom wax jooju ñoom maanaam bi ma saabale dañ leen wax ndax liñ leen waxal nii yéen moom ngeen wax amul kenn ko wax ci ahlu tasawuf amul ci kenn kenn wax ko ci ahlu foofu bal lan ñoom la ñu wax mooy contraire ba mooy tasawuf dafa am ay règle wala am ay qawaid dafa am ay xudud euh, tayib kon def naan yaakaar naa foofu rek bu ñu fa yemoon dina leer mbokk yi moo ne eh, saaxibu taqdis ñaar mi mortal ak li wax du benn tayit kazalika moom it weddi woon na ko def naan it weddi gi gën nag mooy weddi weddi gi borom waaye day baax lool ñi gën a yokk banditu ak tooy wala ñi gën a yëpp yokk mbir mi ak leeral moo أنت سوف يجمع نعم لولو كتر بابو لما شيء أطنط شيء أطنط مودي لولو بيروت نعم دنيا وحنا تسوف يجمع دفع ما إقواعد دام أي رجال ما دفع ما دفع ما أي ضوابط أي حدود بو أجيتا زروق أبي العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله تعالى لأخذ بوكو نجي ورم خم خمي أبو يي ما نم بوكو نجي ورم خم خمي لين إسهام كلير الله ما يتسوف وايد بوكو نجي ورم خم تسوف يجاتا كي بدأ boo xoolee boo xoolee téere boobu di uddatul uddatul muridi sadiq la tax mu téléphone ko gis nga ay mbir yu bëri bëri yoo xam ne da ko gisoon te xelam dalut nga gis ne moom ci jamonoom gis inxiraafaat yi nga xam ne moom la gisoon moom Zarruq mooy jàdd yi xeetu jàdd yoon yi nga xam ne moom Zarruq gisoon na ko ci jamonoom nit ñoo xam ne dañuy wàcc dañuy wàcc yoon bar li wootu tasawuf ñoom la doon radd bu àggee ci teen boobu da taayif na téer doyoon na rek doyoon na ab radd rek maanaam da doy na sëkk ab radd ci tasawuf ahlul tasawuf ñoom dañoo wax ne seen madhab bi dafa tënku ci ay qawaid dafa am ay xudur ay dawabit loolu dayoon na rek mooy ahlul tasawuf ci jëmam eh, bi nga xam ne moom la ñu taalif téere bi nu mu tudd qawaidu tasawuf maanaam règlement yi tasawuf yi source yi tasawuf yi nag biir téere ba ràmboo ay règlement yoo xam ne du tasawuf moo ko jagoo règlement la eh, am na ci waaye nag قاعده suuf moo مورخ mu moo tax xitambale boo àgg ci page vingt et un فالقصد بهذا المختصر وفصوله تمهيد قواعد التصوف وأصوله على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة ويصل الأصول والفقه بالطريقة نينا ما نم ذرق نينا تيري بي غير تاليف ما يلير ma qawaidu tasawuf bi nga xamne sahaba dañ na amul ay ma amul ay doobit waye dama ci leer la mooy qawaaju tasawuf la mooy doobitu tasawuf la mooy usul usulu tasawuf kon lo mom mom ki ab sufyan kala zarruq ken du leen sufi bokut ak ñee nga xamne day ke mom du sufyan waye zarruq sufi la tarif ci bo xamne da ci leer ci tasawuf amna ay qawaid am na ay règlement te règlement yooyu moy yi ak yi ci ben gi mo ne téere bi dama ko taarif ngir leeral lan mooy ma tasawuf kon loolu la muy tekki def naan loolu leer na ci ne kon ahlu tasawuf ñoom li nga xam ne moom lañ ilsaax ci seen kaw ci ne ñoom seen mazhab bi daal ak ndan dafay fay la lu way sos mu dugg ca biir loola wér loolu ñoom wedd nañ ko zarruq yow ci loolu taalifan na beneen téere boo xam ne du ko tuddee usulu tariq téere la boo xam ne lam cay mumaarasa ak di ko di ko di ko fa leeral mooy charte ak qawaid ak règlement ak doobe di nga xam ne ki nga xam ne mooy mooy soo mooy bi yoon tasawuf faw mu amee ko kon loolu defe naa ne wedd na wax ji nga xam ni Euh, tuuma ji nga xam ne teg nañ ko ci seen kaw ci ne ñoom seen madhab bi ñoom dañoo rek ñoom reconnaître nañ loolu maanaam li bu fekkoon ni sax euh, saaxibu dafa wax ni euh, loolu maanaam seen madhab bi amul ay qawaid yam ca waaye da caa gën a lam ci teg moo moo rëy mooy di ñoom wax nañ ko maanaam wax nañ ñun suñu madhab bi amul tasawuf maanaam ñoom wax nañ ni ñun kat li ñu nekk moom ak ndaan dafay fay la loolu mooy li ci yéen mooy ñoom wax nañ ko te ñoom waxuñ ko contraire lañu wax kon kooku mooy zarruq nga demat ci keneen ci ahlu tasawuf muy al sharani Abdul Wahhab sharani nga xamne ne bokk na ci euh ahlu tasawuf ñi nga xamne ne bokk na ci ci talif lu bare bare bare bare siiw ci lool momi tass na fere bo xamne lam ko tudde moy al moy al anwar al qudsiya fi ma'rifati qawa'id al suufiya al-allaamatu al imam sa'd Abdul Wahhab sharani moko ta'lif euh nga xamne lam cey leral moy tasawuf dafa am ay dafa am ay reen dafa am manam dafa am ay règlement téere la boo xam ne bi ko taalif ngir leeral euh, qawaacidi tasawuf ak règlement tasawuf yi تنجلبن كما رسالة عظيمة لم ينفد أحد فيما أظن على منوالها ولا نسحنة وإخوانها سميتها رسالة, الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية موي لم تيلير الموي الرجل ما تصوف كون لول كون لول لير كان تصوف بأن دان دا فاي فاي كوم نيكو صاحب التقرير با بار نك واخنا نيوم دنج كو ريكنيتر Euh, kon loolu moom def naa ni leer na euh, kon loolu def na ni leer na ci ne kon ahlul tasawuf li nga xam ne moom lañ ilsaax ci seen kaw ci ne ñoom dañ koo reconnaître loolu ñoom reconnaître la ñu bind ak la ñu yaxal ak la ñu wax daa wuteeg loolu am keneen ci ahlul tasawuf mooy Abdullahi Xasan Darruq taalif téere boo xam ne du ko tuddee usulu tasawuf maanaam reeni tasawuf euh, fondement yi tasawuf règlement yi tasawuf Euh, euh, loola la ko tuddee kon loolu la muy teg mooy wax ji nga xam ne euh, saaxibu tax dafa na ci tasawuf ñoom am ndànd fay fay la amul loola loola wérut wax jooja wérut la ca gën a yéeme nag mooy saaxibu tax bi ci jëne ak tawilil fasid bi muy tarjumal as-suufiya dafa wax ne ahlu tasawuf ñoom dañoo am ay arkaan am na buddi boo xam ne du ko tuddee arkaanu tasawuf mooy ponk tasawuf mooy yi nga xam ne mooy charte tasawuf mooy ponk yi nga xam ne moo tee tasawuf mooy ponk yi nga xam ne boo ko boolee moo limu ñu tasawuf moom saaxibu taqrir si jëmam boo demee ci jinaayatu ta'wil fasid page 512 ak li ko jiw ak li tege ci ginnaawam moom ma nga wax ne tasawuf ar wa min al wasail eh, alladi istaamalaha suufiya fi dalika ma sammawhu arkaan tasawuf moom na eh, bokk na ci moyen yi nga xam ne tasawuf dañ ko jëfandikoo mooy daa am lu ñu tuddee arkaan tasawuf mooy ponki tasawuf kon kay kon kay loolu li muy tekki moo تصوف أمنا يبونك أمنا يرجل ما أمنا قواعد أمنا ضوابط ما نام أمنا أورجينيشن أمنا أمن نظام وايد أندان في فيلو خلنا فوضى له ميلو خلنا فوضى له ما ندل أم خادم جاي بقول له بريك لوم وخرج لون لنكي لنكي جابي فكرا من ال من الأفكار الصوفية ولا لنكي جابي لو خلنا أم يا أب لنكي جامي مسألة ولا لنكي جابي مذهب مرجح في المذاهب الصوفية لولا مبير مبير نقص دي مم كي مم كي باس آه، سنسنا دوز تيجينا mel tasawuf am nañ lu ñu tuddi arkaani tasawuf ci la toxalee bayit bobu nga xamne euh moy baytul wilayati qusimat arkanuhu sadatna fihi bil abdali ma bayna sumtin wa tizalin daimin wal ju'i was sahri nafihi al ghali kon lolu mi tekki moy wax joju wirut lolu na leer naa ñu la kon lolu moy ajji tombu bu ñëk bi mbokk yi kon lolu moy sunu tombu ñëk njëkk tombu bi modi di dafa am jëm yo xamne sahibu taqdid da leen cité la tax mu leen cité nag mooy ay taarifaat yoo xam ne dañ koy def ci tasawuf bi mu ko indee pare nag mu am tuuma mu am wax ju rëy ju mu teg seen kaw wax jooju wax joo xam ne wax ju rëy rëy la ka mu cité mooy kan mooy Bishrul Xaafi Bishrul Xaafi mi ngi faatu ak Bishrul Xaafi ak Sahib ibn Abdillahi Tabtari bi da koo cité daal doxatoo ab taarif taarif boobu des na ci ñëw des na ci ñëw leeral ko bu soobee yàlla Sahib ibn Abdillahi Tabtari سيدنا وكذلك كي بند بابن تغل أبتعرفهم أبي الحسن النوري سيدنا وتغل أبتعرفهم أبي القاسم الجنيدي أبي القاسم الجنيدي سيدنا وتغل تعرفهم واي آه، سيتكي خدمي موي الشبلي تغل تعرفهم أبي الحسن الخرقاني آه، تغل تعرفهم شيتي شيخ عبد القادر الجيلاني تغل تعرفهم بيبو باري باري دافوخني مانام دا آه، واخني daa wax ni ila xayri zalika damaa dagg tafsir yi ndax lay gudd dafa ni ila xayri zalika min al usus wal mabadi allati dassuha fi taarifihim li tasawuf sufi wa hada al amr من أكبر البراهين الدالة على أن الصوفية المتقدمين هم الذين بذروا كل جذور الانحرافات في تصوفه وإن كان ذلك لم يظهر إلا على التدرج الزمني nee na ñi nga xam ne ñoom la cité ci njëkk ñi mooy Bishrul Xaafi Shibli Al-Imam Junayd Cheikh Abdul Qadir Jilani bi mu doxalee seen taarif ba pare dafa wax ni seen taarif bi dafa lamboo dafa lamboo lu baree baree baree bare des na ci ñëw lamboo na waxee desal wujud comme ni mu ko waxee subhanallah lamboo na li ñuy wax alxaqiqatu fikratu wusuli ila alxaqiqati almutlaqa wahdatul wujud mooy lan jàpp ni lépp yàlla la téléphone bi nga yor yàlla la li ngay jaamu di ko jul mooy téléphone bi téléphone bi nga yor da ciy bokkaale bu fekkee nag wér na ndax dafa am ñu wahdatul wujud ak wahdatul shuhud loolu des na ko leeral déggéen wu ñaaw woo xam ne adiya usrafi daa am lu ci am wahdatul wujud waroo xam leer nañ ko wahdatul wujud gii gii tekki ne lépp yàlla la loolu mooy wahdatul wujud inda al falasifa boo comme ni ko Arrazi waxee bokk teg wahdatul wujud inda sufiya wahdatul wujud inda sufiya mooy wahdatul shuhud ni ko Nablisi waxee ca téeréem boobu idaaxul maqsuud min maana wahdat wujud wa kadalika ibn ajiba ca iqaadul himam waaye nee na ñii ma toxal fii ñii ñàpp ñi ma tudd seen nang ñi ma tudd seen tur sànq ñoom seen taarif bi daal làmboo wahdatul wujud làmboo ay ay xeet ubbi buntu bi daal des na ci ñëw taarif yu jànguñ ko eh, ba beneen yoon ak jàmm ñuy leeral taarif bu nekk ak moom lam wax ne moom moo ca ne ak taarif bu nekk lan mooy dalilam ak gan taw ji lañ koy jox ak la ci aju waaye li ma ñor ci point bi moo di daa wax ni wa hada al amr من أك من أكبر البراهين الدالة على أن الصوفية المتقدمين هم الذين بثروا كل جذور انحراف وتخوفيه نينا سفيان كوي نجكية nga xam ne ñim toxal ñi ci lañ bokk muy bisrul xaafi ñu ñëpp nee na ñoom mooy ñu njëkk ña ci mooy ñim toxal fii sànq nga xam ne day indi seeni wax ba pare teg ko nag daan ne kenn wax ju nekk taari kenn ku ci nekk sa wax pas-pasu nangam ma nga ca ñii seen wax pas-pasu wax wax dëgg jëmm ji kii wax waxam pas-pasu nangam ma nga ca ba pare nag wax ne ñii nii nga xam ne ñooy mutasawwifuun yu njëkk yi ñii nii monsieur Abdul Qadir Jilani Shibli Junayd wa kadalika euh, Bishrul Haafi ak ñeneen ñu ñoom ne na ñii lépp luy xeetu inxiraaf muy jàdd yoon wàcc yoon euh, ak yàqute ñoom ñoo ko ji ñoom ñoo ko jëmbat euh, ñoom ñoo ko jëmbat maanaam ñoo njàng ñoo ñoo ñoo fi jàngale njàngale moo xam ne njàngale mu yàqu la njàngale mu jàdd la njàngale mooma nag ña nga xam ne ñooy seen ginnaaw euh, daal di koy dem daal di cay nekk nag mbir mi daal di ëpp daal di gën a ëpp loxo waaye lépp luy yàqute ñoom ñoo ko waral loolu nag tuuma ju rëy rëy la kon bu fekkee ne li nga wax noonu demee kon jàppal ni kon ñii nga seeti ñoom bokku ci ahlu lol nak mo waral kon dañuy tànn dañuy tan ñi bi kenn ku ci nek ban nazra ban bët la ko xaritam di di xolé ñi ahlu su ñii saay ñii ahmad lo wax ni lépp lu yàqute kul la wax kul la juzur inxiraafat lépp lu xétu yàqute lépp lu xétu inhiraf muy jàdd wax ni pass pass bon ak inhiraf inhiraf lu ci lépp lu ci dugalé Euh, lépp loo xam ne lépp luy xeetu yàqute rek ñii ñoo ko waral ñii ñoo ko jëmbat ñoo ko jàngale loolu nag tekk na ne kon ñii da seen mazhab dafa amoon daa nekkoon mën xaj mën xarif kon bokkoo ci ahlu wa jamaa euh, kon tekk na ne kon ñii ñoom dañoo nekkoon mën xarif dañoo jàddoon tayib gannaaw loo gannaaw loolu la saaxibu taqrir wax day baax kon day bax ñu jël ci ahlus sunnah wal jamaa ñi xol ahlus sunnah wal jamaa ban bëtt lañ doon xolé ñi nga xamne sahibu saaxibu taqdis nee na lépp lu yaq ñoko ñoko jangalé euh ahlus sunnah wal jamaa ban bëtt lañ leen xolé fu leen tek ban makana lañ leen jox lor moy li nga xamne ne moom lañ fas kéere jàngal ba soobee borom bi tabaaraku wa taala dañ koy tàmbale ci ki nga xamne ne moom lañ dikk a toxal moom saaxibu taqdis ab taarifam te moy bisirul hafi ba par nak tek ci waxam ju mujj jii ne lii dañuy teg mooy asuufisme mutaqaddimuun lépp luy xeetu yàqatu ñoo ko waral bisrul xaafi la ñu njëkk a tàmbalee euh, ñëw nag ci tarjumaal ko waaye dañuy ñëw ci lan la ahlu sunnat wal jamaa wax moom ban giseen la ahlu sunnat wal jamaa wax ci euh, am ci moom euh, ndax day dëppoo gisee bi nga xam ne moom la saaxee bu taqdif am ci ñoom ak li saaxee bu tax ñoom wala day wute loolu lañ fas yéene leeral loolu rek objectif biñ ci am moo di dañoo bëgg a leeral dañoo bëgg a xamal dañoo bëgg ki nga xam ne mooy diglu xam ne saaxibu taqdis laalut ñu ndaw maanaam ñi mu laal euh, maanaam maanaam dafa laal ay nit ñoo xam ne maanaam ñi mu laal du nekkuñ ñu ndaw tey Bishrul Xaafi mii mi ngi génne àddina atum cent cinquante comme ni ma ko leeraloo ci anam njëkk ya ci salafu la bokkoon te mooy Bishr euh, Bishr euh, ibn Xaaris ibn Abdurahmaan al-Marwazi al-Bagdaadi mooy ñi ko xam ci Bishrul Xaafi bisul xaafi ni bo xolé kangene ahli sunnati wal jamaa ñi ci ëpp ñoko jàngal Hamad ibn zayd ibn Mubarak ak ibn Mahdi abd al Mahdi ak al imam Malik ibn Anas imam dal hijra wa kadalika ibn al-Ayyash fodo ni ayyash ñoo ñoko jàngal waye kàngami ahli sunnati wal jamaa yu bare bare bare ci mom lañu jàngi al imam Ahmad ibn Hanbal ñi ngi jànge ci mom mi ki nga xamné sahibu saaxibu taqriir limaal na ko indiwaale ab taarifam ba bar teg ci taariqam boobu ابو احمد جانجا نتي موم أه، اك ابراهيم الحرمي محمد بن حاتم اني نيو نيوم أه، لغي كي بن غيس غيس بن غيس غيس اهل السنه والجماعه امون سي نيوم أه، الامام احمد بن حنبل الامام احمد بن حنبل اكزامبل لي نديل الامام احمد بن حنبل الامام احمد دنجكو لاجون اب مساله لو خا ني دا فا الورع موي سامو ak fegu dañ ko laaje masala bu jëm ci lolu mu daan ni astax ana astaghfirullah la yaxillu li an atakallama fil wara wa ana akulu min gallati baghdad law kaana bishru bni alxaaris salaxa an yujibaka anhu liannahu kaana laa yaakulu min gallati bagdad wala min taami sawaad allahu akbar alimam ahmad ibn hanbal ne dañ koo laajoon ab masala bu aju wàllu wara ak càmm ak sàmm ak téye sa bopp mu ne mu ne maa ngi jéggul yàlla man Ahmad ibn Hanbal day daganut may wax ci masala bu euh, ci wàllu wara li feeg maa ngi lekk ci euh, njëriñ maanaam lii di génne ci suufu ndax daal li feeg maa ngi ciy lekk daganut ma ciy wax waaye bu fekkoon ne Bishr ibn al-Harith mi ngi dund boobaa nag moom moom may ki tontu ndax lan moom daanul lekk ci xallatu Bagdaad maam amoon nag warax goo xam ne yenn ñam yi yi ci Baxdaad daaru ko lekk maam dañuy dafa amoon dafa amoon lu ñuy wax alwarax ci indi indi indi suuf ya mooy alwarax mooy ak sàmm gi nga xam ne moom la yur islam waxoon ci xadisu Nu'maan ibn Bashir إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمونها كثير من الناس يندب عليه السلام loolu moo waxoon ci warax mooy ittiqaau shubhaat al imaam Ahmad nee na man day masala bii nga may laaj dëgërut ma ci wax waye day bu Bashir ibn Xaaris bu doon dund dina la tontu ndax warax gi mu qala xoolal alimam Ahmad alimam Ahmad fi mu teg Bashir Bashir al Xaaris kooku ben la amna al hasan ibn Muhammad ibn Ayun da wax ni sami'tu Ahmad ibn Hanbal yaqul lawla bishrun wa ma narju min sikharihi lana lakunna fi utlah al alimam Ahmad nena bu taxutoon ak Bichri mii Bichri mii nag mbokk na ci ñu saaxibu tax rotal rotal seen taarif ba pare def ci taaliqam boobu di wax ne lépp lu yàqu ci ñoo ko waral kooko kooko bu tax di wax loolu moom la Ahmad di wax ne bu taxutoon ak Bichri mii day bu taxutoon ak Bichri mii ak li nga xam ne moom la ñuy moom la yaakaar ci moom maam pour mu jéggalu ñu yàlla moom Bichri mu jéggalu ñu yàlla mu ñaanal ñu yàlla yàlla jéggal ñu bu taxutoon ak loolu day ñun bu ba dañuy imam dañuy yokkat manam euh bu tax bu lolu bu ba dañuy nekk ci ak utla moy ak yokku yani ak ceeb nga xamni ali ibn ahmad ibn hanbal euh fii la bi bisrul hafi كان ngi ni ci ahlu sunna jamaa al hasan alxasan laysi razi dañ ko waxon ne ko neena ben bis ahmad ibn hanbal dañ ko waxon ne ko yow day yajiuka bisrul xaalis bitur day day jóge fa nekk di ñëw ci yow nee na ahmad daan ne laa taunnuuna cheikh nahnu axaqu an nadhaba ilay bàyyi leen li ngeen wax bisul xaaf yi moo gën a yow ñun ñu déplacé dem dem dikkal ko maanaam seeti ko fekk këram maanaam ñun yeyoo wuñ bisul xaaf yi maanaam di ñu fekk waaye bisul xaaf yi mooy ki nga xam ne moo yeyoo man ahmad bin xambal ma ju ma déplacé mu fekk ko ahmad bin xambal fii la tegoon bisul xaaf yi أبي بكر المروزي آه، كذلك لولو أحمد بن حنبل واحتمام المروزي كذلك لولو واحتمام آه، نخم نكون الإمام أحمد بن حنبل في ما نام في رتبة من بشر الحافي الإمام أحمد بن حنبل بشر الحافي بمفاته بمجيء فاطمة رفعه رحمه ما رحمه الله ولم يكن له نذير في هذه الأمة إلا عامر بن عبد القيس نناء يلقى يلقى يرمو Bichru day xeetu lislaam bi gisuma woon gisuma woon maanaam koo xam ne ku ko nduru maanaam amutoon moroom ci xeetu lislaam kenn képp moo xam maanaam moo moom mooy Amir ibn Abdi Qays mooy Amir ibn Qays moom képp laa xam ci ku tolloog moom waaye Bichru Xaafiyay mooy ki nga xam ne xeetu lislaam gi amu ci moroom amu ci moroom Amir ibn Qays subhanallah lii la Ahmad ibn Hanbal سيد وقتي بسر بسر الحافي عبد الحمد بن بس آه، محمد المثني لاج نكو ميرم بشر من لان وقت بشر من عبد ما مثله عندي الا مثل رجل ركز رمحا في الارض ثم قعد منه منه على السنان بشر من باي خلن صوفي ما جمد ما راح بن كتر لا آه، الصوفي بوك سفيان يعني كي جنا ما كي جيتو ثم قعد منه على السنان فهل ترك لأحد الموضع أن يقعد فيه أحمد بن حنبل لنكو ولا أدنكو يو لا وقت بشر بين بس قم لكم على المسلمين تري من بشر دي لما كم يندروله شمان ما يواجه خمني داسم باب خيجم توك manam ku mel نون توك ci kaw xej ji manam da ko ndax ndax ndax ku mel noonu bu toogee ci bërëb bu mel noonu ndax bàyyil na kenn place bëgg wax ni kon Bishr euh, maanaam anam fa mu tolloon ci ak mbaax fa mu tolloon fekk ahlu sunna jamaa tolloon foofu Ahmad Hanbal fa mu ko tegoon tegu fa kenn euh, kon Bishr Bishr waaye nga dem ci kon loolu la Ahmad Hanbal séere ci Bishr Xaafi nga dem ci keneen muy alxatib al Baxdaadi taarixu Baxdaad moo tax ne kaana Bishr ممن فاق أهل عصره في الورع والزهد وتفرد بوفور العقل وأنواع الفضل وحسن الطريقة واستقامة المذهب وعزوفة النفس وعزوف النفس وإسقاط الفضول وكان كثير الحديث خطيبنا بشر لي bokkoon maanaam bokkoon na ci ñi nga xam ne dañoo kawe seen seen seen ak maaf jamono ji leen dund dañ leen féete kaw ci lan ci dëddu àdduna ci sàmm ci xel mu dëgër xel mu baax waaye ci ngëneel ak ci rafet aw doxalin waaye ci jub wastiqaamatil mazhab ba moo ci gën a ñor ak jub ab mazhab maanaam mazhab xam nga bu gisee suufee la woon xatib bu ne kooko nekkoon na koo xam bu dee su xatib moom bokk na ci ñi ko tarjumal ne moom suufi la buñ ko seddalee ci ne Bichri kaana madhabuhu mustaqiman madhab bu jub la yoroon mooy madhab suufi kon madhab madhabun mustaqim mu ne lii la xatib Baxdaadi moom gisin wi la am ci آه، بشر الحارث دار قطني نين بشر الحارث دي زاهد جبل ليس يروي إلا حديث صحيحا وربما تكون البلية ممن يروي عنه أبي الحسن دار قطني قد بابو كنت نجن التر توالق جرح والتعديل دار أمان جتزاهل كم نقو زهبي دي بحاجة الموقذة ويبو كنت نجن التر تكيرتي دار قطني نين بشر ميري مونتاين لا waaye ku dëddu adduna la bisu day du ne euh, xadis rek xadis wér la doon ndax ak dëggoom euh, xati Bagdaadi nee na bisu bi euh, jamano ji nga xam ne ñu ngi koy denc ñu baree bari de maam dañoo dañoo maam maanaam mbooloo mu baree dafa dafa dajale woon ci ak janazaam ci ak dencam waaye ci jamono jooju Yaxya ibn Abdul Humayd al-Himmaani daa wax ne man day gis naa Aba Nasri Tammaar رأيت أبا نصر التمار وعلي بن المديني شيخ البخاري في الجنازة بشر يا في, حالي في, في الجنازة هذا والله شرف الدنيا قبل شرف الآخرة آه، بشر بن بشر بشر الحافي بمفاتو آه، بمفاتو عبد الجم علي المديني تاورنا ابي نصر التمام ابي علي المديني كان قبل رجل علم الحديث اهل السنه والجماعه مو البخاري آه، علي المديني مو طائف نتي مو يبر معيل الحديث كان قبل غير هيك آه، خمنا علي المديني دفعني ما انا جمعنا جيها النبي صلى الله عليه وسلم فاضل نبان درون يوخو موك ابي نصر تمام يوخو دي وخ بادي موي دي وخني هذا والله شرف الدنيا قبل شرف الاخره والجنات يلني كيني دنتي دي موي تدغ ادنا موي تدغ الاخره موي موي تدغ بشرف حافي مي moy tedd ak aduna moy tedd ak alakhirah euh kon mbok yi ki moy bishir moy tarikh baghdad toxal fi ben asar ba ag ci Mouhamadou Sanna mu ndey man de mosuma gis musuma gis ko xam ne moo gën Bichirul Xaafi kon ahli sunna jamaa lii la ñu wax ci bishir al-hafi lañ ko tek Ibnu hibban ci Asiqaat nee na axbaaruhu wa shamaa'iluhu fi وخفي الزهد والورع أزهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفها نانا كين خدنا ما بشر بشر مي أي ما نم أي خبارم أك أي جيكم أك ضد أدنام لو أن فسيوبا أجو ووت ما نم أجو وسني غير مرض ابن حبان كأسقاط لو لي لا هيرجمهم maslama nee na bi rii faadil ku baax la nit ku baaxoon la woon léegi mbokk yi ginnaaw lii wax yi nga xam ne Ahmad bin Hanbal li mu wax ci Bichir Ahmad bin Hanbal ngoog noonu la gisee Bichir foofu la teg Bichir alxasi albaxdaadi yi mi ngoog wa kadalika daara Qutni mi ngoog Ibn Xibbaan mi ngi noonu Muhammad al Maslama ma ngi noonu kazalika ak ñi nañu du ñoom alxatib baxdaadi ak ñi nañu du ñoom ñii lii la ñuy seede ci bisrul xaafi ahlu sunnat wal jamaa nazra bi la ñu xoolee bisrul xaafi fii la ñu teg bisrul xaafi léegi mbokk yi ginnaaw boo xamee ni gis-gis bu kawe boobu moom la Ahmad bin Hanbal gis ci bisrul xaafi mi nga xam ne saaxibu taqrir tudd na turam ci téere bi ba bar def taaliqam boobu waaye alxatib baxdaadi ak ñi nañu dul ñoom Euh, ñeneen ñu tudd ñoom alxatib baghdadi alimam ahmad ibn hanbal ak ibn hibbaan ak ñeneen ñu tudd ñoom gis-gis bii lañ am ak ulamaaw ahli sunna yi mboolem ñu ko bii lañ am ci moom saaxibu taxrij ñëw ne kooku daa bokk ci ñi nga xam ne sufiyaan koy jëkk ya nga xam ne lépp lu yàqute ñoom ñoo ko ji ñoo ko waral ñoom ñoo fi ji ñoo ko jëmbat ba yàqute gi daal kii euh, laaj bi moo di ahlu sunnat wal jamaa day atte nañ dëppoo nañ atte ci biir sutu xaaf ak jub ni ko xatib waxee ne mazhab mustaqim mazhab bu jub la euh saaxibu tax ñëw ne ki day lépp luy yàqute mako waral legi laaj bi laaj bi posé moy sahibu taqdis mom bu fekke ne dafa teungu ci ahlu sunnah wal jamaa doxi bu ahlu sunnah doxi jamaa doxee lay doxee gan ahlu sunnah wal jamaa lay wax ñan lay wax ñan lo moy li ma taxam bo moy fofu moy question bi benen moy waxam jooju du ma ne eh, kon li ma bëgg jàngat foofu mooy jàngat bi mooy waaju tool nii waaju baaxee nii nga xam ne Bichir eh, Ali Madini ni mu toll ci xam-xam ni mu nekkee kàngam Ali Madini bokk ci kàngam yi gën a gën a raglu ci ci xam-xamu yi gën a tar Ali Madini Cheikh al bu demee ba yuuxu naan hada sharafu dunia wal axira di yuuxu naan kii ñi denc tey mooy tëdd nga adduna mooy tëdd nga alaxira moom la saxee bu taq di ñëw daan ne kooku bokk na ci ñi nga xam ne participer nañ ci ñi nga xam ne ñoo ji lépp lu yàqute gi ko war tay kooku bañ la docteur situwaan na cheikh abdul qadir jaylani cheikh abdul qadir jaylani rahimahullahu tabaraka wa taala bokkoon ci kàngum ahlu tasawuf yi nga xam ne bind nañ ci ay téere yu bëree bëri bokkoon ci téere bu gën a siiw mooy alxunya li taaribil xaq cheikh abdul qadir jaylani nekkoon xanbaliyal madhab ci wàllu fiq كوكو كان من كان حنبليا كوكو جي اهل الكتب البوك لا شك صاحب التقرير وطن نكو ورسل آه، لا تعريفهم بابار نك كومونتير كومونتير دان تاع كومون واخي واخي واخي شي عبد القادر يعني جيت نانغام نانغام لاي تيك انحراف سانغام لاي تيك واي لي خامني موم موم سي موي صاحب التقرير نانا في آه، عبد القادر لاني يعني مي دا بوكون تي نيغا خامني دا بوكو تي سفيان كي نيك ياغا خامني Euh, daa bokk ci ahlul tasawuf yi nga xam ne lépp lu yàqute ñoom ñoom bokk na ci ñooñu nga xam ne dañ koo ji ni mu ko waxee ci bisul xaafi noonu la ko waxee ci ñi léegi nag niñ ko leer rek ci bisul xaafi noonu lañ koy leer ci Cheikh Abdul Qadir Jilani ban gis-gis la ahlu sunna am ci moom ndax gis-gis bi ahlu sunna wal jamaa am ci moom moo gis-gis bi saaxib bu taqdis am ci moom benn lam déet da nga gis ne waroon euh, euh, jël kenn rek mooy cheikhul islam ibnu taymiyya rahimahullah xam naa nag dinaa dinaa daaneel fi may fi may daaneel point bi moo di ñoom Bishrul Hafiz ñii ñëpp li cheikhul islam wax ci ñoom cheikhul islam nee na wa cheikh Abdul Qadir wa nahwuhu min a'zam mashayikh lii mi ngi ko wax ci majmu' al-fatawa min a'zam mashayikh zamanihim أمرا بالتزام بالتزام الشرع والأمر والنهي وتقديمه على الذوق والقدر ومن أعذب المشايخ أمرا بترك الهوى والإرادة النفسية Cheikh Lam nee na Ibnu Taymiya nee na Cheikh Abdul Qadir jalani day ak eh, mom da bokk ci serigne yi gëna mag ci seen jamono ñi gëna yi gëna yi gëna ñi gën a topp ñi gën a ñi gën sharia yi gëna dund sharia yi gëna jëf sharia yi gëna a sharia yi gëna a ko ndigal yalla ak tere yalla yi waye bokk ci ñi gën ñi xamne ñoo gëna bayyi banex ñoo gëna sori banex ak bëgg-bëgg bakkan Cheikh Lam neena Cheikh eh, Lam Cheikh Abdul Qadir jalani da ca bok xana ak da ci ñëwaat Cheikh Lam Taymiya nga xam ne cheikh la daa bokk ci suyuxu saaxibu taqris moom lii la seede ci si abdulqadir jilaani kee moom boole ko ca biir ña nga xam ne ñoo ji lépp lu yàqute ci lépp loo xam ne ak yàqute rek ñun duñ koo ji kon kooku benn la al izz ibn abdisalaam al izz ibn abdisalaam nee na innahu lam tatawaatar kalaamaatu ahadin min al mashaayixi illa cheikh abdulqadir فإن كرمته نقلت بالتواتر نير نعم، سي عبد الشيخ العز بن عبد السلام نير سي عبد القادر جلاني دي ما نام أكباخم أجن سي أي كرمم مام كرمم بن كوي نتالي بن كوي رواية بن كوي رواية بالتواتر ما يروح خمر ني بري كوي نتالي بوك تنين ني نير أمول كانو كو خمنا أي كرمم نتالي كو بالتواتر كوري سي عبد القادر جلاني الإمام الذهبي كثير أعلى منه بلا نير الشيخ عبد القادر الشيخ العالم الزاهد العارف القدوة شيخ الإسلام عالم الأولياء محي الدين أبي محمد عبد القادر بن أبي صالح آه، الحنبلي شيخ بغداد نينا قدوة العارفين بنكسر جواب كبير نينا أمن فما خينا قدوة العارفين صاحب مقام نقابة الكرامة نينا عبد القادر يلاني ذهبي كثير أعلى منه بلا نينا عبد القادر يلاني لي موي سيرين موي borom xam-xam bu màgg ba mooy ku dëdd adduna ja mooy ko xam moy ki nga xamne euh moy njital gañu bax ña mom Cheikh Abdul Qadir jelani mom Zahabi lolou wax ci moom al-Imam Nawawi al-Imam Nawawi kadalik ba mu tawqat Shafi'i li Subki al-Imam Nawawi ci jëmmam nee na Cheikh Abdul Qadir Jilani ci jëmmam kaana shaykha saadati Shafi'iyya wa saadati al-Hanabila bi Baghdad وانتهت إليه رئاسة العلم في وقته آه، مانم وخرج بصحبته غير واحد من الاكابر وانتهى اليه اكثر اعيان مشايخ العراق ناوي نيا شي عبد القادر جيلاني مو نيكون سانغو مو نيكون مورم نيغا خاني ньо نيكون سانغو علماء الشافعي مو نيكون سير سيرين مو نيكون سيرين سانغو حنابلي تي بغداد نينا بروم خنكو يو ماغي بري بري بري دانيو اندون اك موم ا ني بري سي وروم خاخ يي ديكو سي العراق دانيو اندون مانام تي موم لا ني جاوالي وون ساكيو خام خام وتلمذ له خلق لا يحصون لا يحصون عدد من أربع مقامات الرفيعة نحن برام خم خبيين خان الرجال أي مقام يكابه في بستان العارف إلى بناه يروح مباري باري دنيو رب سين أه، ما نام دنيو رب سين ووم تكن في عبد القادر جيلاني جي جاجتي مم أه، من وانعقد عليه ناوي ما وخ وانعقد عليه إجماع المشايخ والعلماء بالتبجيل والإعدام والرجوع إلى قوله والمصير إلى حكمه نينا masaayix yëpp sëriñ yeeg waram xam-xam yëpp dëppoo nañ ci màggal ko ak yëkkati ko mu Cheikh Abdou Khadre Jeylaani mii nga xam ne moom la Cheikh Abdou wax nga xam ne dañoo ak màggal ko bokk ci ñi nga xam ne dañoo dëppoo ci dellu ci ay waxam naaw wi ne waram xam-xam yi dëppoo nañ ci dellu di di dellu ci wax Cheikh Abdou Khadre Jeylaani ak ak it di dellu ci ab atteem wa uhria ilayhi ahlu suluk mooy tasawuf min kulli fajjin amiq ahlu tasawuf bu nekk jóge nañ fa داوتي أهل العلم شيخ عبد القادر الجيلاني ليلا النووي سيركي في عبد القادر الجيلاني نانا في عبد القادر الجيلاني نكون خمن كثير التواضع أه واي تميت شديد الاقتفاء لكلام شرعي عباري من اللي مش غير في عبد القادر الجيلاني نكون خمن كتر ما نام كتر اكتوك شريعة له واحكامه معظما لاهل العلم واي نكون خمن مبغضا لاهل البدعه كل بنيان بداره man shaadu Abdul la Jilani non bi dee ku bañoon bidaa la ku ku bañoon bidaa la lii la non lii la Ibnu taymi wax ci Cheikh Abdul Qadir Jilani li la Nawawi wax ci Abdul Qadir lii la Al Ayn al Salam wax ci Cheikh Abdul Qadir Jilani la Zahabi tamit kadalika wax ci Abdul Qadir Al Jilani وكذلك ابن قدامة ابن قدامة المقدسي ابن قدامة لولا لا وقت في عبد القادر وكان يكفي ابن قدامة لأن في عبد القادر جلاني لي نيت لون كو خمني كان يكفي طالب العلم عن قصد غيره من كثر ما اجتمع فيه من العلوم والصبر على المستغلين وسعة صدر كان مليء العين آه، وجمع الله فيه أوصافا جميلة وأحوالا عزيزة وما رأيت بعده مثله ولم أسمع عن أحد يحكى منك أكثر مما يحكى عنه ولا رأيت أحدا يعزمه الناس من أجل الدين أكثر منه ابن قدامة الحمد لله ليه رسالة ممجيشين بالأمس عبد القادر جيلاني ngeen bàyyi xel si Abdul Qaadir Jilaani saaxibu tax tudd na ko ci ñam soxal seen taarif ba pare commentaire yi ay wax dalal wujud rek yem ci yem ciy wax si Abdul Qaadir Jilaani nee na wala Ibnu Qudaama nee na si Abdul Qaadir Jilaani day nit la woon koo xam ne ku ñëw ci moom ngir sàkku xam-xam dootoo soxla ak jiw kenn ndax xam-xam dafa daj ci woon ci ci dënnam waaye si Abdul Qaadir Jilaani nee na yàlla daa jël melokaan yi rafet yi daa jël ay daa maanaam melokaan yi rafet yëpp la yàlla jël dajale ko si Abdul Qaadir Jilaani mboolem axwaal situation maanaam melokaan yu tedd yépp te rafet yàlla du ko jël daal koy dëkk ci Abou Xajara loolu Ibnu Qudaama wax ci Sadio nee na man Ibnu Qudaama day musuma gis musuma gis ku maanaam ku mel ni moom musuma gis koo xam ne nit ñi dañ koy màggal ngir diine ku mel ni si Abdou Xajara ni ñu ko màggalee Ibnu Qudaama lii la wax ci si Abou Xajara nii waaye alxaafid Ibnu Xajar al Asqalaani Ibnu Xajar al Asqalaani ابن حجر العسقلاني آه، مام تجمم كذلك والله واحد شيخ عبد القادر الجيلاني ابن حجر العسقلاني نينا كان الشيخ عبد القادر متمسكا بقوانين الشريعه يدعو اليها وينفر عن عن مخالفتها ويشغل الناس فيها مع تمسكه بالعبارة والمجاهده ومزج ذلك بمخالطه الشاغل عنها غالبا آه، كالازواج والاولاد نينا Eh, Ibn Hajar al Asqalaani nee na Cheikh Abdul Qaadir Jilaani nekkoon na koo xam ne ku jàppandu woon ci ci sharia ala waaye nekkoon na koo xam ne ku taroon la ci wattandiku loo nit ñi bidaa la nekkoon na it koo xam ne day woote jëm ci topp sunna alquran ak sunna ba ñu wàcc yoon yi lii Ibn Hajar moom la wax Cheikh Abdul Qaadir Jilaani ba tey waram xam-xam yi Ibn Rajab Ibn Rajab al Hanbali ca tabaqaatul Hanaabila ابن رجب كذلك لولا la wax ci cheikh abdul qadir jilani nee na cheikh abdul qadir mi ngi ko tudde dafa dafa ne سيد أهل الطريق محي الدين آه، ظهر للناس وحسن وحصل له القبول والتام وانتصر أهل السنة الشريفة بظهوره ولو وانتصر أهل السنة الشريفة بظهوره وانتقل أهل البدع والأهواء وشهرت أحواله وأقواله وكراماته ومقاشفه ابن رجب الحنبلي mais Cheikh Abdul Qaadir Jilaani day euh, mooy sultaanu masayix mooy njiital euh, gaañu baax ñi euh, mooy ki nga xam ne ahlu sunnati wal jamaa bokk na ci li leen mbay ndam mooy feeñ gi mu feeñ moom Cheikh Abdul Qaadir bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gënoon maanaam ñoo gënoon a bañ bidaa bokk ñi nga xam ne bokk na bokk na ci nga xam ne ndërmee lañ ahlul bidaa ibnu rajab ci tabaqaatul xanaabiya gisin wii la am ci Cheikh Abdul Qaadir Jilaani kathir في البداية والنهاية كذلك ابن نفي عبد القادر يعني كان فيه تسهل كثير وله أحوال صالحة اليافعي كمرآة الزمان آه، مرآة الزمان في أعيان الزمان كذلك لولا واحتمام أك ورم خمخمي سبت من الجوزي كمرآة الزمان في تاريخ الأعيان لولا واحتمام جنا بعد هذه النقول الكثيرة أهل السنة والجماعة جسمي ليلا يوحكي شيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى نيوغم الشيخ الأمتمية لمحسنهم saaxibu taqdis gis nga ni ñii seeni wax dafa waroo lool ak li saaxibu taqdis wax saaxibu taqdis dafa wax de bokk na ci ñi nga xam ni lépp luy ay yàqu yàqute rek moom bokk na ci ñi ko ji ñoo ko ji moom Seydou Xajaan bokk na ci ñoo ndax tudd na turam ci biir ba pare def taali xam boobu waaye ahlu sunna wal jamaa moom fii la ñu teg si kii fii la ñu teg si Cheikh Abdul Qadir Jaylaani makkaana bii lañ ko jox place bii lañ ko teg. mu waro lool ak place bi nga xam ne mënoo saa saa saa bu taqrir teg loolu di tekki ne kon bu fekkee ni wax ju wérut la maanaam ñaari wax yi wax yi naaw yi dafa xam ne ijma am na ci ngëneelam ijma am na ci Cheikh Abdul Qadir Jilani maam ijma am na ci seen ci borom xam-xam ci ne dañuy dellu ci ay waxam ay waxam dellukaay la saaxibu taqrir ñëw fekk la ahlu sunna wax yépp mu dal koy buub sànni sa àll ba. ñëw samp benn mbiram la mu samp moo di Seexul Xadiim daal ne lépp luy yàqute lépp luy inxiraafat muy jàdd yoon moom mii bokkoon nañ ñu ko jiwoon loolu wax ju rëy rëy moo tax euh, loolu la war a wax ñoom am na lu ahlu tasawuf wax ci ñoom indi donte nag ñii ñii du ma leen génn ci ahlu tasawuf waaye Shaa'ira am ko indi ndax boo ko indee day mel ni ahlu tasawuf indi ñii nga xam ne xëy na saaxibu taqdis ak ñu mel ni ñoom danañ jàpp ne duñu ay sufiyank donte wérut nag ci loolu lay daylu euh, waaye Sha'rani euh, ay euh, Ahmad Rafaai Ibn Arabi Cheikh Ahmad ak ñeeñu du ñoom kazalik loolu wax si waaye ñooñu doo leen indi ci bërëb yu mel nii ngir wax ji man a gën a mën a matale kon loolu leer na kon ñooñu nga xam ne bu saaxibu taqi si cité na leen ci bërëb boobu ci page trente neuf jàpp page quarante wax ne ñoom lépp luy ak yàqute ñoom ñoo ko ji da caa bokk mu ci Abdul Qadir Jilani moom nga xamne non la ahli sunna wal jamaa gisee fofu lañ ko tek waye bokk ci ñom al bishr hafi al-Haafi bokk ci ñoom kazaalika Sahl ibn abdullah Tasturi euh xamna bu pare dañu daanal ci cheikh lam Taymi lam wax ci ñom ñëpp lam mam cheikh lam Taymi ci jëmam nazara bi mu am ci ñom manam beut bi mu leen xolé ak fam mu leen teg ak fam mu leen considéré ndax day dëppoo fi leen saaxibu taqdis considérer wul de waye bokk nak ñi nga xam tuddu na moy mooy Cheikh Ibn Abdillahi Tasturi wala Tustari sayyid moom bi ahlu sunnati wal jamaa'i yi dañ ko fañ ko tegon fañ ko tek ak mom fi ko saxee bu takhris convert ben mom moom abdullah Abdillahi bokk na ñi nga xam ne waye tuddu tudd na leen pare daan leen ñom dañoo ji bu maanaam bu zuural inxiraafaat ñi nga xam ne lépp li ak yàqute kulla juzuuril inxiraafaat bokk na ci bokk na ci ko yi bokk na ci ñam wax na ñom ca bokk moy سهل مين خان ما يسهل عبد الله تسهل سهل منك بوالي بجي برم خفن سني أهل السنة والجماعة كذلك نظر بن بنك أمكم نقص عن داودك نظر بن خان ما يسهل بدك سام بوالي بجي يسير على من بلا زهر بداية وحنا لسهل من عبد الله ابن يونس شيخ العارفين أبي محمد التستري الصوفي الزاهد نين سهل من عبد الله ميدي موي موي سيرنيو غاني باخنا غاني خم يالنا موي كود ادنا آه، تكلم في له كلمات نافعة ومواعد حسنة وقدم راء لموت جنان يوسف الذهبي وخدم راشق في الطريق آه، الذهبي يعني سهل عبد الله ميري آه، توخال نانتي موم اي بات اي وخم بات وخي اي بات ام جارين واي اي اي وار يو رفت واي سهر مي كات يالا لاكو مايون قدم رافخ ما دغ بسخن سخي دغ بو تي خم خم تي تي يون تي يون ليلى ذهبي سيرتي كي انا موي ابن عبد الله آه، بو ديمتي كون بو ديمتي آه، ابي ابي نعيم الاصبهاني كي الاولياء وطبقات الاصفياء ومن كذلك آه، فكير خبي با 189 داي واخني فمنهم بوكو اهل الصوف موي الشيخ المسكين الناصح الامين الناطق بالفضل الرصين أبي محمد سهر بن عبد الله بن يوسف يونس بن عيسى بن عبد الله بن رشيع التفطري بوكو نتغانيو باخنيو غا انت يالله موي سهل مي أه بو دي ماتي وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان بو ابن خلكان كان تي ورخو اهل جماعه تي تي تي تاريخ بوبو فوليم فوليم 2 بوم كاتر بوم كاتر دي ابو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله كي سهل ميلي لم يكن له في وقته نذير آه، في المعاملات والورع وكان صاحب كرامات آه، كي خان موي سهل سهل لي جامونو جيمي دوند اموتون كو ملني موم تي جيفلانتي اموتون كو ملني موم تي اك سام يالا ترل يالا مايون كو مو نيك بوروم كرامه لي لا لي ابن خلكان وقت وفيات الأعيان وأبناء ابن الزمان آه، ابن الأثير الكامل كذلك أبي عبد الرحمن السلمي نين السهلمي أحد علماء أهل السنة والجماعة كان لك بروخه أهل السنة والجماعة قن ثلاثة أبي عبد الرحمن السلمي نك آه، شيخ الله مطقنك نين أبي عبد الرحمن السلمي نتكو باخلة نتكو باخلة شيخ الله نين بوك نجتيري مجنيتو ci di mooy téere abi abdurahman sulami borom at tabaqat abi am nee na cheikh ahlimi ahadu ulamai ahli sunnati wal jamaa kenn la ci waram xam-xam ahli sunnati wal jamaa nadra bi nga xam ne moom la gaañ am ci moom sahli mii nag sahibu taqdis moom nee na daa bokkoon te ña nga xam ne dañoo dañoo ji li ñuy wax jusur ixrafat lépp luy ak yàqute ñoom bokk rek ci ko waral kon foofu foofu la foofu la waroon xam teg sahli ibn abdillahi tasuri Eh, wa kadalika boo ñi daanele ci Junayd donte li mu tudd daa lool boo bëggatal kenn ku ci nekk li la borom wax de waaye nag dañuy daanele Junayd ci li Cheikh la wax ñoom ñëpp nag ndax dëppoo naag moom mii moom fi mu leen classé bu saxee Cheikh la dëppawut ak moom mii bal daa dëppoo ak ahlu sunna fii ci fi mu classé gaañ yi nga xam ne waa ji da leen tuumaal ci ne ñoom lépp lu yàqute bokk nañ ñu ko jëmbat ñoo ko jëmbat kon waa ji laaj bi laaj bi posé foofu mooy waa ji li muy wax fan la ko jëlee ci ñeen la ko jëlee bokk na ñoom tudd ci eh, ñi nga xam tudd na leen ci ne ñoom lépp luy ak yàqute ñoo ko waral mooy al imam Junayd tudd na imam Junayd al imam Junayd moom doy na sëkk rek nga jël Cheikhul Islam Taymi Cheikhul Islam ci jëmmam bërëb yi nga xam ne day tudd imam Junayd ci nga xam ne du ko boole kenn moom képp la fay tudd boo demee ci Majmu' al-Fatawa Cheikhul Islam nee na wal Junayd wa amsaaluhu a'immatu hudan wa man xaalafu fi dalika fa huwa daal nee na ne Léon Junayd ak képp képp comme ñu mel ni moom ñoom ay njiiti ak ay njiiti njub lañ ay njiit lañ yoo xam ne képp ku wuuteeg ñoom rek kooku dafa réer maanaam maanaam Cheikhul Islam Cheikhul Islam moom fi mu kalaate Léon Junayd Abdul Qasim Junayd Baghdadi rahimahullahu taala fi mu ko teg moo di Cheikhul Islam daa jàpp ne képp koo xam ne wuute nga imam Junayd rek kooku da ngaa réer moo tax ci majmu al-fatawa daa wax ne wa man xaalafahu fi dalika fa huwa daal képp koo xam ne wuute nga ak al imam Junayd kooku da ngaa réer imaam Junayd nag bokk na ci bokk na ñi nga xam ne waa ji siif leen ba pare leen euh, teg seen kaw tuuma yooyu yi waaye sëriñam nee na Cheikh imaam Junayd nee na fa man salaka maslakal junayd min ahli tasawuf wal maarifa kaana qad ihtada wa képp koo xam yoon wi junayd di jaar jaar nga fa yow jàppal ni euh, di nga maanaam gindiku nga tey kazalika mucc nga loolu la Cheikh Islam wax nii loolu loolu la Cheikh Islam wax ci Al-Imam Junayd Cheikh Islam la wax ci Al-Imam Junayd Al-Imam Zahabi Al-Imam Abi Nuaym Al-Asbahani ci Al-Hilya daa wax ne Junayd kaana rahimahullahu taala mimman ahkama ilma sharia bokkoon te ña nga xam ne dañoo xereñe xam-xam sharia lool Cheikh Islam nee na Al-Junayd في مجموع الفتاوى يعني الجنيد من شيوخ أهل المعرفة المتبعين لموت نور لكتاب السنة daa bokk chouux interview yi nga xam ne tokal toppal sunna jullit debi ci la bok ci sahibu taqdis mom considéré ko ci ñi nga xam lépp lu yàq ñu ñoo ko waral imaam Dahabi ci sir alam nubal ci taarixul islam nee na kaana Junayd nee na kaana cheikh al aarifina wa qudwata saa'ilin wa ilman awliya fi zamanihi nee na Junayd moo nekkoon sëriñu gaa ñu baax ñi moo nekkoon royteef ak way dox jëm ci yàlla ña moo nekkoon di wit kàngamul waliyu اليوم جنيد لي لسيركي كين خانة موي ما نم اليوم ذهبي لي لسيركي كين خانة موي جنيد كأهل السنة الخاتم بغدادي نانا جنيد صار وصيح وقته وفرز عصره في علم الأحوال جمونا جم دون دون مو نكون كن كي جمونام مو نكون سيري جمونام لول بغدادي في تاريخ سيرنا لول كي كين موي اليوم جنيد borom xam-xam ahli sunna jamaa yi fi la tegon ñi nga xamne sahibu tax leen tux ak ñi xam ci duma leen waye ñu daane rek cheikhul islam fan la tek ñi ma tuddi fi yëpp cheikh islam tuddi na leen ñoom ñep kenn ko yëg sa ak ñeneen ñu dul ñoom daat ni daal daal di joxe ñoom gis-gis bu mu am ci ñoom cheikhul islam boo demee ci baye bayan talbisil jahmiya fi tasis bi daal kalam neena nee na fa amma shuyukhu al-mashhurun inda inda inda al umma الذين لهم في الأمة لسان صدق مثل أبي القاسم الجنيد تذنا وصانق وسهيل بن عبد الله تستري وأبي عبد الرحمن السلمي وعمرو بن عثمان المكي نينا ني ñoy ñi nga xam ne ñoo gën a sori bidaa cheikh islam lii la seede ci ñoom lii la cheikh islam seede ci ñoom ñoom ñoom ahlul tasawuf boo demee ci daru taarud al aqli wa naql cheikh islam nee na wa shuyukh tasawuf al mashhur min al mashhurun min abra nas min hada al madhhab مدل مبتدعه شي موم دون نان موم دا ام اهل تسو دا ام لي واخ مدل مدل بدعه مو شرط لا تي دار والنقل ني اهل تسو ني ньо غنا سري مدل لما تي غنيار صاح ماي بربي ييغا خا ندي دور موم شرط لا شي الفتاوى كوم ييغا خا ندي جانغون ناكو تي جيتاي جيكيا الفتاوى مو سي دور بتا كذا واما ائمه الصوفيه والمشايخ المشهورين من القدماء مثل الجنيد كيد محمد واتباعه ومثل الشيخ عبد القادر فهؤلاء من أعدم الناس لزوما للأمر والنهي وتوشة بإتباع ذلك وتحذير من المشي مع القدر لأن ني عبد القادر جيلاني أجنبي لأن ني دنيو بوك ني جنة توب سنة في الإسلام واي نيغا خا نيو گنا توپ نديغال يالا يي اك تري يي گنا سوري بدعه نير كو شيخ لام واخي شيخ لام ني لاكو واخي تي تريم بوبو دي مجموع الفتاوى amna na feneen xamni dafa wax ni wa cheikhu abdul qadir min aadami shuyukh zamanih li leeroon nak sank ne si abd qadir da bokk ci ñi gëna mag ci serigne sëriñ jamonom waye bok ñi gën ñi gëna mag ak top sunu ci alayhi salaam ñi gëna top sunu ci si alayhi ñi gëna tambu topp sunna si alayhi salaam li mo wax ci ne di waxoon naa ko sànq kon cheikh islam gisin wi gisin wi la am ci ahli sunnah wal jamaa amna na ci majmu ci ci ci ahli tasawuf ci gaañ yi nga xam ne bokk nga waaj waaju tudd na leen am na foo xam ne tuddal na Sahl ibn Abdullah as-Sari ak Junayd ak ñeneen ñu ñoom ak Cheikh Abdul Qadir Kaylaani Cheikh Abdul Qadir Kaylaani benn la tudd na tudd na leen ñii ñoo gën a sori bidaa bal la ñu nekkoon dañu jàppoon sunna jamono ji nga xam ne saaxibu taqdis mi ngi leen melal ci ne ñoom lépp li ak yàqute ñoom ñoo ko waral euh, kon loolu Cheikh gisin wala Cheikh Islam am ci ñoom a Sehlam tuddatu Junayd imam Junayd daana imam Junayd rahimahullahu taala kaana sayida taifa wa min ahsanihim taaliman ta'diban wa taqwiman bokkoon na ci nekkoon na ki nga xam ne mooy sangub kuréel bi tasawuf waaye nekkoon na ko nekkoon na nekkoon na ñi gën rafet am njàngale ak yar moom Cheikh Islam loolu la wax ci Junayd Euh, cheikh islam kazalika kon cheikh islam loolu wax ci altine bi am na feneen foo xam ne daa tudd tuddaan dafay kazalika ñi nga xam ne ñoom la tuddoon sànq muy cheikh ibn abdillahi tasuri ak ñeneen ñu dul ñoom euh, cheikh islam tuddaan na leen ci foofu euh, leeral ci na ñoom ñoo gën a sori bidaa dañoo sori bidaa lool kon loolu def na ni leer na kon cheikh islam nazra bi mu am ci ahlul tasawuf ñii nga xam ne saaxibu taqrir tudd na leen daan na ñii lépp luy ak yàqute ñoom ñoo ko waral euh, pour nga xam danger rek jam gim leen jam da ngay dellu ci ahlu da ngay dellu ci waram xafu ahlu jamaa yi nga jël ci kenn par kenn bul ñeex nga jël bishul xaafi wala nga jël euh, aljunayd wala shaatu qadirani maanaam boo leen jëlee da ngay gis ne da ngay gis ne danger bu rëy rëy la bu tex def fii mooy fekk ñi nga xam ne euh, ku toll ne Ali Madini daan yuuxu naan kii mooy ta digg ak adduna ak àllaaxira ak kooku nam meloon imaamu kaana imaaman min aimmatil xadis daanay xam ne danger bu rëy la saaxibi taqrir def ci bërëb bi mooy jam leen ba pare tuumaal leen inxiraaf tuumaal leen it eh, ndax lim leen lim leen tuumaal du ndaw yonent bi alayhi salaam daa wax ni man daa ila dalalatin kaana kaana alayhi wisruha wa wisru man amila biha ila yawmi alqiyama képp koo xam ne da ngaa jëmbat loo xam ne ak réer la képp ku ko jëfe yow jàppal na nga ci am bakkaar bu euh, te saaxibu taqdis li mu wax mooy ñoom ñii tamit dañoo jëmbat loo xam ne ak réer na loo xam ne ak ak càngute la comme moom ni mu ko waxee ni mu ko gisee dañoo jëmbat loo xam ne ak càngute la dañoo jëmbat loo xam ne ak réer la euh, loolu la saaxibu taqdis wax ci gaañ ñi bu ko defee xam naa foofu la ñuy daanelee kàddu gi ba beneen yoon jàmm bu ko ñu ñëw ci nag euh, benn tom bi mooy wax ji nga xam ne moom lañ toxal ci Sahr ibn Abdillahi yi ak lënt biñ ciy def ak it benn bi moo di